الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله ومن اهتدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki comme niñ ko xamee li ñu fi dajale tey amaana umpul kenn ci ñi fi teew mu mel ni kon li nga xam ne moom mu am solo moom mooy ñu dugg ci liggéey boobee te du leneen lu dul benn dars boo xamante ni am nañu yéene taataan ko fii ñu toog ni mu bokk nag ci durus yi nga xamante ni nii xam-xam mënu koo féete kaw ci ne maanaam loolu dafay itteel jullit bi fu mu mën a nekk dafa bokk ci li nga xam ni fardu ayni la ci jullit bi mu xam ko te loolu moom mooy ashirk wa anwaauhu maanaam li nga xamante ni moom mooy bokkaale gi nit ak jinne di bokkaaleeg yàlla ak ay xaajam léegi nag ba ñu guddal mbokk mi koy def mu ngi suñu wet incha allah du jar ay présentation li ñuy bëgg moom mooy lu fi waay dégg mu bees ci moom mu daal di koy jàpp wala mu daal di koy bind lu fi waay dégg beesul ci moom mu daal di koy fàttaliku daal di koy taxawee yal nañu yàlla yombalal loolu fal yatafaddal mashkura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 salawaatullahi wa salaamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabi'ahum bi ihsaanin ila yawmi ddin amma ba'd fa inna xayra alkalaami kalaamu llahi azza wa jal wa xayra alhadyi hadyi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuuri muhdasaatuhaa wa kulla muhdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar wa baad comme ni ngeen ko déggee ni ko mbokk bi waxee li ñu fas yéene fàttalante mu ngi dellu ci ak shirk mooy li ñu xam ci bokkaale waxtaan wi nag du xëy na sax xam-xam bu bari boo xam ne séntu nañ ni dinañ ko fi mën a détaillé ndax xëy na xam-xam bi matewu ko waaye li ma jàpp moo ne fàttalante la suñu biir ci mbir moomu nga xam ne lu rëy rëy la shirk nag xëy na nit ki dina posé wu lan moo tax ñuy tëb di wax ci a shirk wallahi ma ma shuftu mushkila léegi sirk lu bon la léegi ndax jullit bi dafay soxlawoo xam lu bon loolu ci diineem wala da koy doy rek mu xam lu baax mooy safaanu shirk te mooy wéetal yàlla subhanahu wa léegi ci li wër mooy ne xam shirk xam lu bon lu ñu sàkku la ci jullit bi mu xam ko ndax euh, comme nu ko yàlla subhanahu wa taala waxee aoudu billah min alsheytan irrajim wa kadalika nufassilu al ayati wali tastabina sabilul mujrimin yàlla mu ne dafay leeral ay aayam leeral ko yaatal ko ngir yoonu ñi nga xam ne ñooy ñi kàccoor ñi tooñkat yi seen yoon feeñ nit ñi xam ko léegi yoonu ñi nga xam ne ñooy kàccoor yi feeñ bu muy feeñ doomu aadama bi xam ko lan la ci mën a jariñoo ba tax yàlla subhanahu wa taala jox ko importance boobu di ko leeral ci quran wala ci waxyu léegi ku mel ne imaam ibn al qayim rahimahullah dafay wax ne maanaam doomu aadama yi ci wàllu xam ñeenti ñeent lañ ñeenti kuréel lañ am na ci ñoom koo xam ni dafa xam lu baax rek rekk rek yem ci am koo xam ni dafa xam lu bon rek yem ci maanaam xam ko ci nu mu gën a leeree nu mu détailloo mu xam ko am beneen kuréel boo xam ne ñoom lu leer lu baax leerul seen bopp lu bon leerul seen bopp dañoo jaxasoo am keneen koo xam ne nag dafa xam lu baax ba mu leer naññ ginnaaw ba tamit mu xamaat lu bon ba mu leer nañ kooku mooy ki nga xam ne moom moo am xam-xam ndax moom mooy mën a xam lu baax ak lu bon mën a def distinction séparé diggante ñaari mbir yooyu kon jullit bi duñ na rek dafay soxla mu xam wéetal yàlla rek subhanahu wa taala yem ci li ci des mu réere ko ndax bu ko bu réeree ci moom day daal di lënt loolu mooy al al mushtabih loo xam dafa dafa lënt dafa nuroo ci moom xàmmeewu ko moo tax euh, xudayfa ibn alyaman daf doon wax naan kaana annaasu yasaluuna annabi sal allahu alayhi wa sallam an alxayr wa kuntu asaluhu an alchar maxaafata an yudrikani ci benn lafdu mu ne maxaafata an aqaa fiihi mu ne doomu aadama yi ci jamono yonent bi sal allahu alayhi wa sallam dañ daan xir ci di ko laaj aw yiw lu baax maanaam seen i jaamu yàlla ku def lii lan lay am lii lan mooy yoolam lii naka lañ koy defee yonente bi salallahu alayhi wa sallam di leen ko leeral xudayfa mu ne moom daf daan laaj yonente bi salallahu alayhi wa lu bon moom maanaam moom la ñu wax naan saaxibu asraari nabi salallahu alayhi wa sallam moom moo ëppoon lu muy laaj yonente bi salallahu alayhi wa sallam ci yenn xew-xew yi yi nga xam ne dafay ñëw ci mujjantalu jamono naka lay amee ak yenn fitan yenn fitna yi nga xam ne dina dal ci xeet wi yenn jamono lay ñëw moom xudayfa ibn al moo tax mu ne danaan laaj yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu bon ngir bañ cee bi ci benn xadis ci benn lafz mu ne ngir bañ mu dal ko kon loolu nga xam ne fa doon na ko taxawoo di ko laaj yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci boobu bunt la jullit bi di timit jéem a xam ci diineem loo xamante ni jàpp nañ ne aw lor la wala lu lu bon la dafa leero waaw loolu mooy li nga xam ne mooy tax nit ki di jug di xam lu mel ne ashirku billah bokkaaleeg yàlla subhanahu wa taala comme li shaar bi wax ne araftu charra la li charri lakin li tawaqihi wa man lam yaarif charra min alxeyri yaqa fiihi mu ne damaa xam lu bon ngir def lu bon moom moo tax ma xam ko waaye damaa xam lu bon ndax képp ku xàmmeewul lu baax ak lu bon di nga tàbbi ci lu bon kon ci boobu buntu la ñuy toog di fàttalante lu aju ci wàllu léegi bokkaale ci boppam lu yàgg la bu mu amee ci doomu aadama yi waaye du moom mooy cosaan ci nit nit liy cosaan ci moom maanaam bi yàlla subhanahu wa sàkkee mbindee fii liy cosaan li fi nekkoon mooy wéetal yàlla subhanahu wa taala ndax am na juyoo bu am du ma wax sax ci biir boroom xam-xam yi ci yenn waxkat yi ñoo xam dañu jéem a saxal ne doomu aadama yi ci shirk lañ nekkoon ci bokkaale lañ nekkoon dem ba ay jëmmi jamono yàlla yebal ay yonent ñu ñëw jëlee leen ci bokkaale boobu yóbbu leen ci wéetal yàlla ndax li yàlla wax ne kaana naasu ummatan waaxida faxtalafu mu ne doomu aadama yi dañu nekkoon benn kuréel ñu dem ba ay jamono ñoom ñu wute ci seen biir léegi benn kuréel boobu ñu doonoon laata ñuy wute ci lan lañ nekkoon ndax dañoo nekkoon ci shirk muy bokkaale wala ndax dañu nekkoon ci tawxid muy wéetal yàlla subhanahu wa taala am ñu ne doomu aadama yi ci li ñu nekkoon mooy ci bokkaale waaye li gën a wér mooy ne doomu aadama yi ci wéetal yàlla subhanahu wa taala lañ nekkoon laata shirk di ñëw laata ñuy xam lan mooy bokkaale comme ni ko abdullah ibne abbas waxee ci benn affaire mooy fi yàlla waxee ne kaana annaas ummatan waxida fa baata allahu nabiyina mubashirin wa mundirin abdullah ibne abbas daf ne li dale ci aadam ba ci nuux nekkoon na fi ay ay génération yoo xam ne mat na fukk mu ne ñoom ñëpp dañ nekkoon ci benn diine nekkoon ci tawxid di wetal yàlla biñ ñëwee ba ci jamono nuux ci la shirk njëkk tàbbi ci kaw suuf moo tax li nga xam ne moom la ñuy wax ne nuux mooy awalu man arsalahu llah ila wajhi al ard mooy ki yàlla subhanahu wa taala njëkk a yabal ci kaw suuf am na ci borom xam-xam ñu ko tekkee ne mooy ki njëkk a yabal ci kaw suuf ngir mu woon nit ñi jële leen ci shirk yóbbu leen ci tawxid ndax laata muy ñëw moom nuux shirk amu fi woon kon moom lañ njëkk a yabal comme yonent boo xam dafa ñëw ngir xeex feebar boobu nga xam ne mooy ashirku billah ndax ci xeetam dafa am ay gaa yu baax yoo xam ni dañ daan jaamu seen borom subhanahu wa taala di ko wétal nekkoon ay nit yoo xam ne ñuy séntu ci ñoom aw yiw la ñi ñooñu bi ñu faatoo seytaane ñëw ci xeetu ñi nga xam ne ñoom la nuux jamonantaloon daal di leen de wax na leen gaa yu baax yi day da ngeen leen war di fàttaliku ngir bu ngeen leen di fàttaliku ngeen mën yéen tamit di taxaw ci jaamu yàlla ak di leen roy léegi loolu dafay waral ci bu ngeen leen bañee fàtte dafay waral ci yéen ngeen daal di defar leen ay lu mel ne ay statuette yoo xam ne da ngeen leen di yett teg leen ci seen bërëb yi nga xam ne ñoom foofu lañ faatoo ngir ngeen leen di fàttaliku léegi loolu ñoom bu ñu koy def li ñu ci jublu woon mooy di leen fàttaliku ngir bañ leen fàtte waaye Abdullah ibn Abbas daf ne falamma halaku wa nusiya al ilm ubidat maanaam bi ñooñu faatoo génération boobu nga xam ne ñoom lu seytaane ñëwoon digal leen loolu ñooñu bi ñu fi jógee xam-xam dem ba néew nag nit ñi fàtte xam-xam xam-xam gën a néew ci la iblis ñëwee nag daal di sol nit ñi ay xel ci ne dañuy dañ leen war a waaye kenn waru leen exposé nii rek toog di leen foofu la shirk njëkk a njëkk a amee ci kaw suuf doomu aadama yi commencé di bokkaale borom bi subhanahu wa taala di jaalu di jaamu leneen lu dul yàlla subhanahu wa taala kon di nga gis ne ci li jiitu li fi nekkoon moom mooy tawxid wéetal yàlla subhanahu wa taala loolu mooy lu jiitu te itam ci loolu loolu mooy fitra bi nga xam ne ci la yàlla subhanahu wa taala sàkk doomu aadama yi ndax yàlla mi ngi naan fa aqim wajhaka liddiini xanifan fitrat allah allati fatara annaasa alayha la tabdila li xalqillah mu ne na nga jébbal sa bopp taxawal sa bopp ci diine ji nga xam ne mooy diine xanifan diine ji nga xam ni ku ci nekk dangay ngay wéetal yàlla bañ koo bokkaaleek lenn loolu mooy al xanif léegi mu ne diine jooju mooy fitra nature bi nga xam ne ci la yàlla subhanahu wa sàkk doomu aadama yi mu ne nature boobu nga xam ne ci la sàkk doomu aadama yi nag kenn wara koo soppi ci la nit ñi war a continuer nekk ci kon loolu mooy tawxid bi nga xam ne ci la yàlla sàkk nit ñi ci la nekkoon laata shirk di am léegi nag ashirku billah buñ ko waxee dañ koy dafa am lu tekki yu gën a siiw ci lu ñuy tekki mooy jël jaamu yàlla jagleel ko keneen ku dul yàlla lu bari ci yenn téere yi nga xam ne da nga koy li di ci fekk ñuy tekki ñuy taarif ak shirk dañuy wax ne mooy sarf ibadatin li xayrillah maanaam jël benn jaamu boo xam yàlla moo ko yoroon yàlla mais tekkin boobu tekkin bu bu tënku la ndax benn ponk rek wala benn xaaj rek ci xaaju shirk yi lay tekki mooy shirkul ibada mooy shirk al ibada mooy euh, bokkaaleeg yàlla ci jaamu yu mu ko war a jaamu mais bokkaale bu ñu ko waxee ci sens général gën na yaatu loolu ndax euh, lépp loo xam ne ak yàlla la kullu ma huwa xaqun lillahi xaalis fa sarfuhu li gayri la lépp loo xam ne aqu yàlla la joo xam ne moom rek moom moo ko yelloo moo xam lu ñuy jëf la di ko ko askanale wala ay jëfam yoo xam ne moom moo koy jëf wala ay melokaan yoo xam ne moom rek moo ko melowoo loolu yépp dans l'ensemble loo ci jël askane ko keneen ku dul yàlla subhanahu wa def nga li ñuy wax shirk muy bokkaale nga ndax shirk kalimatu shirk ashraka yushriku shirkan foofu ishrakan moom moo war a nekk masdar bi mais ñi jëfandikoo kalimatu shirk mais shirk du masdaru ashraka ndax ashraka yushriku masdar bi moom mooy ishrak maanaam dafay bokkaale ci arab bu ñu ko waxee li war a nekk masdar bi mooy al ishraaku billah mooy bokkaale yàlla subhanahu wa mooy yow sa bopp yaa bokkaale yàlla ak keneen léegi loolu nag bu dee ci langu arab day lu muy tekki ci sens bu ngay dégg nii rek mooy dafa mel ne yow dangaa jël yàlla ci boppam bokkaale boole ko ak keneen mais au fond tekkiwul loolu ci maanal istilaax yi ndax boo xoolee même ba ci tawxid noonu lañ koy tekkee moo ne waxada yu waxidu tawxidan wéetal na yàlla du caagante ne da ngaa ñëw yàlla fekkoon ko mu bokk ñeneen yow nga jël ko seppi ko wéetal ko ndax yow loolu mënuloo ko amuloo kàttanam mbindeef bu doy di nga ci ci kanamu borom bi subhanahu taala mais waxada allaha waxda waaxidan aw waxidan mooy fas na ci xolam ne yàlla subhanahu wa taala kenn dong la amul lenn lu bokk ak moom naka noonu tamit ashraka billahi bokkaale na ak yàlla du caagante ni da nga ñëw fekk yàlla subhanahu wa taala melokaan bu mu meloon wala loo xam ne moom rek moo ko yelloo nga jël keneen jox ko loolu kooku mel noonu nga melale yàlla ak keneen nga boole ko ak keneen loolu kenn amul kàttanam kenn mënu ko mais li nga def mooy da ngaa fas ci sa yàlla subhanahu wa taala am na keneen koo xamante ni yelloo na lu yàlloo yelloo wala mel na ni nga xam ne moom la subhanahu wa taala mel loolu la ñuy tekkee kon shirk billah léegi kon tekkin boobu dafay nekk boo xam ne moom mooy gën a yaatu làmboo façon shirk yépp te du yem rek ci benn mais bu fekkee da nga koo tekkee jël benn jaamu yàlla jox ko keneen ku dul yàlla bu boobaa shirkul ibada moom nga tekki waaye tekkiwuloo ak shirk umuman léegi shirk boobu nga xam ne mooy ashirku billah bokkaale ak yàlla subhanahu wa kooku mooy aqbaxu dunub mooy li gën a li gën a li gën a ñaaw li gën a bon ci bàkkaar yi nga xam ne moom dafa génn sax ci xaddul kabair nga xam ne dafa génn dépassé sax place bi nga xam ne mooy place u bàkkaar yu mag yi ndax bàkkaar yu mag yi comme na ko ahlu sunnati wal jamaa di waxee mooy saaxibul machi saaxibul kabair taxta al machia koo xam ne dafa dee faatu ak ay bàkkaar yu mag kooku dafay nekk taxta machiatillah dafay de nekk ci suufu coobare borom bi subhanahu wa taala bu ko soobee borom bi mu jégal ko bu ko soobee mu mbugal ko la mu yellool mu génn ko dugal ko aljanna waaye du sax ci biir safara waaye dangay gis ni shirk koo xamante ni faatuwaale na ko fa huwa xaalidun muxalladun fi naar dafay nekk ku sax déej ci biir safara du génn sawara ndax am na ay aaya yoo xamante ni moom moo ci ñëw ginnaaw bi ci ginnaaw incha allah dinañ ko dinañ ko tudd kon da gis ne shirk moom dépassé na rutbatul al kabair maanaam dépassé na fi nga xamante ni foofu la bàkkaar yu mag yi yem mais daf koo gën a rëy yàlla subhanahu wa taala tamit da koo da tere bu rëy rëy rëy ndax yonent yi mu yabal yépp yónni leen ci ñu xeex shirk boobu moom moo tax ñu yebal leen mooy ñu woo doomu aadama yi jëmal leen ci wéetal yàlla subhanahu wa taala bañ koo bokkaale ak dara loolu mooy mission boo xam ne moom la borom bi subhanahu wa taala yónni bépp yonent boo xam ne ñëw na ci kaw suuf kon shirk comme ni ko ibnul xayim di waxee day moom day wone shirk ñaaw gu mu ñaaw ak rëy gu mu rëy ci leeral contraire shirk parce que dafay wax ne bu fekkente ni yàlla def ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabudun ma nit ak jinne lu dul ngir ñu jaamu ma nga xam ne kon jaamu yàlla wéetal ko moo tax mu sàkk leen moo tax ti mu ne wa saxara lakum ma fi samawati wal ardi jamian minhu loolu tamit moo tax yàlla tàggatal leen lépp lu nekk ci asamaan ak suuf mu nekk seen disposition ñu mën koo jëfandikoo ngir mën a taxaw ci objectif bu rëy boobu nga xam ne moo tax mu sàkk leen te mooy ñu wéetal yàlla subhanahu wa taala bañ ko bokkaaleeg dara ci loolu la asamaan ak suuf taxaw ci mandute googu ak dëgg googu moo tax yàlla sàkk mbindeef yi mu ne kon lépp loo xam dafay ñëw di safaanoo ak loolu di juyoo ak loolu mu ne kon loolu mooy doon tooñ gi gën a rëy ci tooñ yi parce que mu ne tawxid mooy mandu gi gën a rëy ci mandu yi mooy mandu gi gën a jub ci mandu yi kon lépp lu safaanook moom te muy shirk mu ne kon mooy doon tooñ gi gën a ñaaw gi gën ci tooñ yi moo tax yàlla ne inna shirka la zulmun azim léegi kon da nga gis ne shirk shirk lu rëy la te itam mooy li yàlla subhanahu wa taala njëkk a tere ci alquran bi mu waxee ne fala tajcalu lillahi andaadan wa antum taalamuun bu leen utal yàlla ay moroom ñoo xamante ne da ngeen di jàpp ne mën nañoo dend ak yàlla am lu ñu bokk ak moom borom bi subhanahu wa taala fekk yen ngi xam ne yàlla subhanahu wa taala ku set la ci loolu lim njëkk a digle tam mooy safaanu shirk te mooy tawxid mooy fi mu waxee ne yaa a nnaasu ubudu rabbakum alladi xalaqakum walladina min qablikum laallakum tuflixuun yéen mbindeef yi yéen doomu aadama jaamu leen seen borom bi nga xam ne moom moo leen bind ngeen jaamu ko wéetal ko moom dong comme ni abdullah ibne abbas waxee ci quran buñ ne ubudu jaamu leen seen borom mu ne lu mu ci lu muy tekki mooy waxidu mooy wéetal leen seen borom bañ koo bokkaale ak kenn wala lenn kon di nga gis ne kon shirk moom ci boppam lu rëy la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko abdullah ibn bi ko abdullah ibn mas'ud laajee ci xadis boo xam ne mi ngi ci saxiix daf na ko ay ayu dunubi azam lan mooy bàkkaar bi gën a rëy ci bàkkaar yi daf na ko an tajala lillahi niddan wa huwa xalaqak mooy nga utal yàlla ay ndend ñoo xamante ne da nga leen di jël di leen bokkaale ak borom bi subhanahu wa taala te yàlla moom dong moom moo la sàkk bi mu waxaatee tamit ne ittaqu as-sab'ul mubiqaat na ngeen mooy tëndiku juróom-ñaar yi nga xam dafay alakaate mu juróomi ba juróom-ñaari bàkkaar yi nga xam ne moom moo gën a rëy bi ci jiital mooy al ishraaku billah mooy nga yàlla subhanahu wa keneen ku dul moom yàlla subhanahu wa kon shirk ci boppam ijmaul umma mooy na shirk loo xamante ni lu xaraam la lu ñaaw la loo xamante ni mooy tooñ wi gën a rëy ci tooñ yi donte liir naa ci wax Ibn al-Qayyim loo xam ne itam lu taxaw la mooy ne waxal yàlla loo xam ne waxu ko fenal yàlla subhanahu wa taala moom moo gën a rëy shirk waaye loolu ba léegi mën na duggaat ci suufu shirk ndax moom aaya bi mu daliloo mooy li yàlla wax ne qul innama harrama rabbi alfawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bi ghayri alhaq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la taalamun bi yàlla subhanahu wa taala waxee ne yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neel mbindeef yi kaay ma wax leen lan la seen borom xaraamal ci yéen dafay lim yi nga xamante ni moom la yàlla subhanahu wa taala xaraamal ñaawal ko ci mbindeef fi ñu def ko mu koy lim selon seeni i degré tàmbalee ci gën a suufe di yéeg bi mu ñëwee ba ci ashirk yamul foofu waaye da cee teg ne wa an taqulu ala allahi ma la taalamuun bi nga xam ne moom la mujjee wax te nga xam ne moo ci gën a fort daf ne mooy ngeen waxal yàlla loo xamante ne xamoo leen ko tegoo leen ko ci xam-xam ibnul qayim mu istidlal daliloo ci boobu ne fenal yàlla waxal yàlla lu mu waxul moom moo gën a ñaaw moo gën a rëy nga bokkaaleeg borom bi subhanahu wa taala te kalaamuhu wajih maanaa loolu mu wax noonu lu dëgër la loo xam ne neexul a dàq ndax borom xam-xam la boo xam yàlla may na ko may na ko xam ak gis bu yaatu ci ci alquran ak sunna te itam jàpp ma ne wax yu mel noonu dina ko wax teg ko rek ci ijtihaadu boppam bu ko defoon sax yelloo na ko waaye du ñàkk mu am ci xam-xam boo xam ne ci la ko teg mosuma koo gisal keneen nag koo xam ne wax na ko allahu alam léegi shirk ci boppam dafa am ay xaaj yoo xam ne moom la ko borom xam-xam yi di xaaj léegi xaaj yooyu nga xam ne moom la borom xam-xam di xaaj lu mel ne shirk muy bokkaale wala moom la ñuy xaaj lu mel ne tawxid dafa am ñoo xam ne dañuy wax ne loolu bidaa la loolu lu ñu sos la ci diine mais nekkul sax loo xam ni lu sax la am ci benn waay boo xam muta an nit jiddan maanaam nit la koo xam day day day takalluf di dugg ci jéem a radd ak jéem a di collé chaque jour ñi nga xam ne ahlu sunnati wal jamaa ngir bëgg a wane maanaam ngir taqal leen ay mbir ngir ñi nga xam ne ñu amuñu xam-xam ñu ñëw alawaam mu nax leen ci ay wax ngir euh, maanaam influencer leen ba tax duñ déglu ahlu sunnati wal jamaa ak ngir réeral leen dafay wax ne tawxid aqsaamu tawxid al thalath aw aw thalatha mu ne ñetti xaaj yi tawxid mu ne xaaj boobu ñu ko xaaj bidaa la ku mel ne ibnu taymiya wala muhammad ibn abdul wahab mu ne ñooñu ñoom ñoo fi indi xaaj yooyu mais nekkul loo xam dafa sax ci alquran wala ci mais da nga gis ne wax jooju wax ju yàqu la ndax euh, aqsaamu tawxid ak salaasa bu ko borom xam-xam yi di tudd fekk na boobu ibnu taymiya ñëwagul sax ñëw na ci kalaamu ñu bëri ci borom xam-xam yi ku mel ne ibnu batta ñëw na ci waxam moom ci boppam mu wax wax joo xam dafa taqsim tawxid salaasatu aqsaam ñoo xamante ñu ngi doon dund ci xarnu al xarnu rabi taqriban al xarnu salaas al thalith du na kon yooyu mbir yu yàgg la yoo xam ni du jamono ji la ko borom xam-xam yi sooba tàmbali di wax loolu benn la ci dàq ne moom lu mu wax na ñi ñoo ko sox ñi nga xam ni ñu mujjee ñëw lañ ku mel ne Ibn Taymiya wala Muhammad ibn Abdul Wahhab loolu du dëgg ñaareel ba lu mu wax ne loolu teguwul ci ay dalil te am na sax ci ñoo xam ne dañuy askanoo ci sunna masalan wax jooju dugg nañ ci da ngay dégg ñu naan la yéen xaaj da ngeen di xaaj tawxid masalan naan salatat aqsam wa kaza ay mbir xam ne ay Muhammad wala ñoom ñoom ñoo ko sos mais loolu du dëgg parce que loolu dañ ko teg ci li ñuy al istiqra mooy lan parce que xukmul istiqra ci boppam dafa nekk loo xam ne borom xam-xam ne dañuy dëppoo ci ne lu ñu war a nangu la lu ñu war a accepté la istiqra mooy nga ñëw jël ay teg yoo xam ne rot na ci benn mbir moo xam ci alquran ak ci sunna yëpp nga jàng ko topp ko de A à Z boo ko toppee daf lay jox benn résultat résultat boobu loolu la ñuy istiqra mooy da ngay istiqra jami al alwaarida fi shirk aw tawxid léegi boo istiqraawee nusus al kitaab wa sunna mu jox la ne tawxid ci boppam yanqasim ila talatati aqsam tawxid dafay xaajale ko ñetti xaaj am beneen xaaj boo xam ne borom xam-xam yi dañ ko koy xaajaat mooy tawxid al maarifa wal isbat ak tawxid al qasd wa talab loolu yëpp ay façon xaaj la yoo xamante ni bi dàqontewul ci borom xam-xam yi nuñ ko xaajee ndax bii mooy tawxid al rububiyya tawxid al uluhiyya tawxid al asma wa sifaat dañoo jàng nusuus texte yi nga xam ne moo ñëw ci alquran ak sunna fekk ko muy xàjjale ko ñetti xaaj yooyu ñoom bu ñu nekkoon tawxid yanqasim ila salasati aqsam du loo xam ne bidaa la mais dañ koo teg ci al istiqra naka noonu tamit shirk noonu la ñëwee boroom xam-xam yi xaaj ko ay xaaj am na nag uute bu am bayn al ulama ci aqsaamu shirk parce que ñenn ñi dañ ko xaaj shirk akbar shirk asgar yam foofu am ñoo xam dañ ko xaaj ñetti xaaj ne shirk akbar taarif ko mooy ñu tekki ko mooy lan ñëw ci shirk asgar xaajaat ko ñaari xaaj mooy shirk jali shirk xafi am ñeneen ñu ñëwaat xaajaat ko ñeenti xaaj ne shirk akbar ci boppam dafay xaajale ko ñaari xaaj shirk xafi shirk shirk jali te loolu yëpp nañ leeral mooy lan ñëwaat ci shirk euh, al asgar xaajaat ko ñaari xaaj muy shirk jali ak shirk xafi loolu yëpp ay ijtihaadaat la yoo xam ne ku nekk sa wax amal ko ay dalil waaye gisi ni ñoom ñooy ute léeg-léeg ci yenn texte yi loolu rek moom mooy ixtilaaf bi mais du caagante ne dafa am ixtilaaf boo xam ne bu tax ñuy wax wuute la moom moo am seen diggante léegi ak saamu taw shirk yooyu nga xam ne boroom xam-xam yi xaaj nañ ko xaaj yooyu dañuy wax ne ci biir xaaj yooyu shirk dina xaajali ko waat yeneen xaaj yoo xam ne ñu bëri duñ ci bàyyi xel mooy ne boo jëlee li ñuy ak shirkul akbar nga xam ne mooy xaaj bi njëkk ci xaaju shirk yi mooy shirk bu mag bi nga xam ne ku ko deewaalee boo demee da ngay boo dee da ngay tàbbi sawara ba noppi tamit yàlla subhanahu wa taala du baal ki nga xam ne moom moo ko deewaale te tuubu ko ba noppi tamit boromam bu duggee sawara du génn dafay sax te itam koo xamante ne dafa def shirk boobu dafa koy génn ci islaam beneen atte bi ci des mooy itam shirk boobu ku ko def say jëf dafay màbb loolu yépp ay si moom moo ci ñëw ci quran ak sunna di melal shirk boobu ku ko def ne atte yooyu moom mooy tegu sa kaw bi ci njëkk mooy ne li yàlla wax ne inna allaha la yaxfiru an yushraka bi wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha mu ne yàlla subhanahu wa taala du jéggale bàkkaaru bokkaale du jéggale ñu bokkaale ko ak leneen lu dul moom waaye leneen lu si yàlla dina ko jéggale léegi ma duna dalika liman am na benn uute bu tuuti bu ci am ci bi baynal ulama ci diggante borom xam-xam yi mooy ma duuna dalik ndax ñi nga xamante ni masalan dañuy wax ne euh, taariku sola la yakfur koo xam dafa bàyyi julli du du yéefar dañuy wax ne ndax yàlla moom moo ne wa yaxfiru ma duna dalika li man yasha koo xamante ni masalan shirkul yàlla subhanahu wa taala mën na ko jéggal ndax beneen bàkkaar bu dul bàkkaaru shirk yàlla subhanahu wa na ko jéggale te bàyyi julli du shirk ñoom loolu la ñu wax léegi yeneen borom xam-xam yi ne leen maa duna zalik li muy tekkiwul ci aaya bi ne leneen lu dul shirk mais li muy tekki mooy leneen loo xam ne gën naa tuuti shirk yàlla dina ko jéggale maanaam tekkiwul ne leneen lu dul shirk rek yàlla dina ko baale mais li muy tekki mooy leneen lu gën a tuuti shirk yàlla subhanahu da koy jéggale kon foofu am na uute ci ba baynal ci wax ci yàlla wax ne maa duna zalik liman yasha léegi kon yàlla subhanahu ci aaya boobu lu ñu ci jële mooy ne kon shirk koo xam ne faatoo na ko te aaya boobu loolu lay tekki tekkiwul na nit ku ko def ci àdduna fii laata muy dee bu tuuboon yàlla du ko jégal tekkiwul loolu waaye lu muy tekki mooy koo xam ne dafa shirk dajeeg boromam fekk ne tuubul bàkkaaru shirk boobu le te mooy ashirkul akbar beneen atte bi mooy koo xamante ni dafa def shirk dafay sax ci sawara mooy la yàlla wax ne innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa mawaahu nnaar wa ma lizalimina min ansar léegi yàlla subhana dafa wax ne koo xam ne dafa dee ak bàkkaaru bokkaale boobule kooku dafay sax ci biir sawara lu tax mooy ne yàlla daf ne dafa xaraamal ci moom aljanna bi mu xaraamalee ci moom aljanna nit ki mën na dute ne kon loolu rek su ci mën a déggee ne masala nit ki ci biir sawara lay sax ndax xam nañ ni baynal janna wan naar diggante aljanna ak sawara am na benn bërëb bu ñuy wax aaraaf aaraaf boobu am na ñu fay nekk di nekk duñ nekk aljanna duñ nekk sawara waaye aaraaf boobu li borom xam-xam yi wax mooy ne luy sax ñun dañ fay nekk benn diir waaye dañ leen fay jóge lu mu yàgg-yàgg dañuy dugg aljanna mu des rek ahlul naar ahlul janna léegi moo tax yàlla bi mu waxee loolu ba noppi dafa leeral ñooñu ne bu fekkee dañu xaraamal ci ñoom aljanna fan mooy doon seen dëkkuwaay mu ne wa ma'waahum wa ma'waahum naar kooku dëkkuwaayam moom mooy doon saxuwaayam moom mooy doon sawara kon koo xamante ne dafa dee ak bakkaaru bokkaale boobu ba léegi itam dafay sax ci biir sawara ak li yàlla waxoon laqad uxiya ilayk wa ila alladina min qablik la in ashrakta la yaxbatanna amaluk wa la takunanna min alxaasirin ak li mu wax ne walaw ashraku la xabita anhum ma kaanu yacmaluun yàlla subhanahu wa taala dafay wax yonante bi salallahu alayhi wa sallam te mooy loolu mooy ak tanbih bil aham mooy yàlla subhanahu wa taala dafa dem def tanbih maanaam dafa jëlee ci ki nga xam ne mooy nday mbilli ji moom moo féete kaw keneen ku dul moom mu junj ko moom ci boppam wax ak moom yonente bi salallahu alayhi wa sallam xaashaahu an yaqaa fi shirk yonente bi du tàbbi ci bokkaale mais lan moo tax yàlla subhanahu wa taala wax ak moom ci aaya boobu ne ko wala la in ashrakta la yaxbatanna amaluk bu fekkonte ni bokkaale nga yow muhammad kon sa jëf dina dina nen sa jëf dina màbb te moom yàlla subhanahu wa moom moo ko moo ko defal isma mooy ne waxuma la sax di tàbbi ci bokkaale mais même yenn bàkkaar yu ndaw ndawaan yàlla daf koo daf ko moom fekk daf ko aar ba du ci tàbbi moom sallallahu alayhi wa sallam kon léegi naka la ko yàlla di waxee ko la in ashrakta la yaxbatanna amaluk loolu li ci yàlla di jàngale mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk xeetam ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci ginnaam nekk ci suufam ne ñoom taxul sax ñuy wax bakkaaru bokkaale bu ko joomu aadama bi defee muy bokkaale bu mag boobu dafay màbb ay jëfam dafay màbb ay jëfam loolu amul wax loolu mooy atte yi nga xamante ni aju na ci ci bokkaale bu mag boobu le léegi bokkaale bu mag boobu kon li ñu ci namm mooy bu fekkente nit ki def na ko bu ci faatoo dafay sax ci biir sawara dañuy xaraamal ci mu aljanna naka noonu tamit dafay dafay génne doomu aadama bi ci ci islam ndax euh, yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf ne umirtu an uqaatila nas xata yaqulu la ilaha illa allah wa anni rasulullah mu indi yi nga xamante ne bi moom la ci teg moo ñu jógee ci shirk ak beneen bi mu ne illa an yuwaxidu allah léegi yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf ne dañ maa digal ma xeex ak doomu aadama yi ma woo leen ba baa ñuy jóge ci bokkaale di ñëw di wéetal yàlla subhanahu wa taala ndax lafz bi nga xam ne moom laa mujjee wax te mooy ilaa an yuwahidullah mooy ba baa ñuy wéetal yàlla subhanahu wa taala loolu mooy kon nit ki bu fekkee nekkul ci wéetal yàlla nekkul ci biir islam des ko war a woo keroog muy tuub di dugg ci biir islaam léegi bàkkaar bu mag boobu nga xam ne mooy bokkaale boobu li ma ci bëggoon wax mooy dafay xaajalikoo waat yeneen ñetti xaaj moom bokkaale boobu nga xam ne mooy shirkul akbar ñetti xaaj yooyu mooy ñetti xaaj yi tawxid di xaajale ko tawxidul al rububiya tawxidul asma wa sifaat tawxidu al ibada mooy tawxidul uluhiya léegi ñetti xaaj yooyu nga xam ne mooy ñetti xaaju tawxid tawxid bu ci nekk boo ci shirkee loolu benn xaaj la ci xaaju shirk yi léegi bu fekkonte ne li ñuy wax tawxidul rububiya mooy an tuwaxid allah fi afaalihi mooy nga wéetal yàlla subhanahu wa taala ci ay jëfam jëfam yi nga xamante ne al muxtasa bihi jëfam yi nga xam ne moom rek moom moo ko jagoo di ko def lu mel ne rey dekkal wërsëgal bind moom ak di tàggat di doxal lépp lu am loolu yàlla subhanahu wa rek moom moo ko jagoo ci ay jëfam la bokk yoo xam ni waree su ko cee bokkaaleel keneen ku dul moom léegi jëf yooyu bu fekkee doomu aadama bi jàpp na ni am na keneen ku dul yàlla koo xam ne dina rey wala dina dekkal wala dina wërsëgal wala dina am lenn lu muy tàggat di ko doxal benn sañ-sañ bu mu am ci doxinu mbir mi loolu bu boobaa bokkaale lay doon shirk lay doon ndax moo ko jagoo amul keneen ku ko ci fekk ci ku moom borom bi subhanahu wa ta'ala kon loolu day daal di nekk kon shirk bi rububiyya day daal di nekk bokkaale goo xam ne nit ki bokkaale na ko ci yàlla subhanahu wa taala ay jëfam yi nga xam ne moom rek moo ko jagoo loolu kon day daal di nekk benn qisme min aqsaami ashirk boo fekkente ni tawxidul asma wa sifaat mooy nga wéetal yàlla subhanahu ci turam yi nga xam ne turam yu sell yi ak melokaanam yu màgg yu tedd yi nga wéetal ko ci ne moom moo ko melowoo ay turam la yoo xamante ni dafa làmboog ay melokaan moom borom bi moom melowoo melokaan yu kawe yu sori yooyu amul kenn ku mel ne moom laysa ka mislihi shay wa huwa samiul basir yàlla kenn melul ne moom lenn melul ne moom ni mu mel moom rek moo ko mel ci jëmmam ji léegi yow boo gëmee ne yàlla subhanahu wa taala am na keneen koo xam ne mel na ci lenn ci melokaanu borom bi subhanahu wa taala lu jàpp ne maanaam yàlla dafa sàkk masalan muhammad ci leeram léegi da nga bëggoon na kon muhammad yàlla la am melokaan yi xam ne mooy melokaanu borom bi subhanahu wa taala wala lenn ci melokaan yi nga xam ne ay melokaan la yoo xam ne yàlla subhanahu wa taala rek moom moo ko jagoo lu mel ne xam xam xayb masalan yàlla moom mooy alimul xayb wa shahada yàlla dafa bokk ci ay melokaanam yi mooy koo xam ni dafa xam kumpa dara dara ump ko dara nëbbu ko léegi yow boo shirkee foofu nga jël yàlla subhanahu wa taala utal ko beneen ndend ci melokaanam yooyu nga xam ne moom moo ko jagoo wala turam yooyu nga xam ne moom rek moo ko jagoo loolu tamit beneen xeet la ci xeetu shirk yi kon loolu shirk la fil asma wa sifaat boo ñëwaatee ci tawxid bi nga xam mooy tawxidul ibada mooy tawxidul uluhiya te ñaari sens la bu ci nekk bokkul bu léeg-léeg dañ koy wax tawxidul ibada léeg-léeg ñu wax ko tawxidul uluhiya bu ñu ko waxee tawxidul uluhiya mooy liy dellu ci yàlla yàlla ci boppam moom al uluhiya mooy nekk yàlla gi mu nekk yàlla ñu war koo jaamu loolu moom dong moo ko jagoo amul keneen ku ko nekk ku dul moom mooy al ilah boo ne tawxidul ibada mooy ne jaam ni jëf yi ñuy jëf muy seen i jaamu yàlla rek moom moo ko jagoo moom rek lañ ko war moom rek lañ ko war a wéetal léegi loolu di suñuy jaamu yoo xam ne yàlla moo ñu sant ne nañ ko jaamu bañ koo bokkaalee kenn wala lenn nit ki bu jëlee lenn ci jaamu yooyu ko yàlla sant ne na ko ko jagleel mu jagleel ko lenn lu borom bi subhanahu wa taala loolu shirk la ba léegi te loolu mooy shirk bi gën a siiw ci shirk yi mais du xaaj boobu kese mooy xaaju mooy shirk shirk xaaj la yoo xamante ni gën na yaatu loolu kon dangay ngay déggaat ne ba léegi shirk dina xaajale ko waat yeneen ñetti xaaj ci benn xaaj bu mag boobu nga xamante ni xaajoon nañ ko ko ba léegi ñu jàll léegi ci beneen xaaj bu nga xam ne mooy shirkul asgar boobu moom moo gën a compliqué tuuti donte maanaam wax ji jeexul ci bii dañuy wax rek li nga xam ne mooy aqsaamu shirk xaaj yi nga xam ne mooy xaaju shirk léegi shirk al shirkul asgar léeg-léeg dañuy wax ne mooy arriya mooy ngistal loolu lan moo tax mooy yonente bi sallallahu alayhi wa dafa am ci benn xadis mu ne axwaf ma axaafu aleykum riya aw shirkul asgar li nga xam ne moom laa gën a ragal ci yéen mooy shirkul asgar mooy bokkaale bu ndaw ñu ne ko wa ma shirkul asgar ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko lan mooy bokkaale bu ndaw yow yonent yàlla bi mu ne huwa riya moom mooy ngistal léegi foofu lañu waxee ne kon shirkul asgar moom mooy riya mooy ngistal mais shirkul asgar tënkuwul dong ci ngistal moo tax boroom xam-xam yi am ci ñoom ñu ko xaaj ñaari xaaj ne shirkul asgar bokkaale bu ndaw ñaari xaaj la dafa am boo xam ne dafa nëbbu am boo xam ne dafa feeñ mooy alxafi wal jëli bu nëbb bi ñu ne mooy arriya mooy loo xam ne ngistal la wala ndéggital dafay aju ci yéen nit ki loolu mooy shirk boo xam ne bu ndaw la ba pare nëbb mooy bu làqu beneen bi mooy yi nga xam ne yu feeñ la yu feeñ yooyu mooy yi nga xam ne shay amal yi maanaam day tax day taqoo ak jëfu jaam bi lu mel ne waat ci keneen ku dul yàlla man xalifa bi gayrillah faqad ashrak koo xam ne dafa waat ci keneen ku dul yàlla kooku def na shirk léegi nag yow boo nee léegi masalan lan mooy tegtalu wane ne lii shirk maanaam waat ci keneen ku dul yàlla la borom xam-xam yi dañ ko wax noonu rek par hasard wala ndax li ñuy wax dañ ko teg ci xam-xam dañ lay wax ne la maanaam borom xam-xam ahlu sunnati wal jamaa xaw ma yan borom xam-xam de waaye ñoom duñu waxantu lu ñu wax rek dañ koy teg ci loo xam ne ci istiqra la ak loo xam ne dañoo jàng alquran ak sunna yàgg ci taxi yi ba xam ba jële ci ay résultats yoo xam ne nit ki bu fekkee bëgg na muccam ci àdduna ak ci àllaaxira bëgg na sax ci tegu ci yoon wu jub dafay jéem a fexe di dëppoo ak ñoom ci ay gisinam te bañ di wuteeg ñoom lu bari surtout bu fekkee sama classe bi xam ne seen xam-xam léegi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne shirkul asgar boobule moom mooy riya borom xam-xam yi tekki ko ñaari xaaj yooyu léegi ñaari xaaj yooyu benn bi mooy bu feeñ benn bi mooy bu feeñul bi feeñ bi nee naa la dugg na ci waat ci keneen ku dul yàlla te loolu dafa am détail ndax waat boobu dafay aju rek ci nit ki waat ci keneen ku dul yàlla ci loo xam ne masalan da koo tàmm ci làmmiñam wala mu def ko rek ci loo xam ne amul benn rapport bu mu am ak ci lu mu ci xolam mais bu fekkee dafa fas ci xolam ne kooku muy waat ci yàlla kooku nga xam ne moom lay waat te du yàlla ci kooku lay waat te du yàlla dafa am ci yenn melokaan yi nga xamante ni yàlla rek moom moo ko jagoo ba tax mu sañ a waat ci moom loolu boobu boobaa shirk bu mag lay doon ndax duñ wax rek ne waat ci keneen ku dul yàlla rek shirk bu ndaw la yem foofu mais da ngay détaillé ne kii di waat ci keneen ku dul yàlla lan moo ko pousse ci ba muy waat ci kooku di fi bàyyi borom bi subhanahu wa taala léeg-léeg lu koy yóbbu ci loolu mooy dafa jël ci lenn ci sañ-sañ ci àq yàlla yi ak ci melokaanu yàlla yi jagleel ko kooku ba tax muy waat ci moom bu fekkee loolu moo ko yóbbu ci di waat ci moom loolu boobu waa shirk akbar lay doon naka noonu man taallaqa tamima faqad ashrak koo xam dafa takk loo xam ne des koy takk ci lu mu ay xeeti gàllaaj yoo xam daan nañ ko fas di ko defar ngir lan ngir bëgg mu muccal leen ci lu mel ne bët gis ak ay mbir yu bari léegi loolu ñenn ñi bu ñu bëggee réeral doomu aadama yi dañ koy daal di commencé di ko tekkee ay per ak ay petaaw ay xor ne loolu rek moom mooy tamima foofu la yem mais déedéet tamima dafay dugg ci lépp loo xamante ne doomu aadama yi ñu ngi koy defar di ko takk ngir loolu objectif boobu muy ngir mu muccal la fegal la ci aw ay wala mu xëccal la njariñ mais du da nga koy tekkee ci li xam ne rek masalan jamono yu ko yonante bi sallallahu alayhi wa di wax ñooñu moom lañ doon jëfandikoo ndax loolu boo ko defee da ngay neenal texte yi nga xam ne moom moo rot ci alxuraan ak sunna ndax lu bari loo xamante ne bi sosaat na fi ci ginnaaw yonante bi sallallahu alayhi wa sallam texte alxuraan ak sunna dañ koy jël atte ko ci kawam loolu bokk na ci mat goo xam ne islaam mat na ko mooy ne texte yi bi muy wàcc am na lu bari ci lu ñu jëfandikoo loo xam ne feeñagul woon waaye buñ buñ ñëwaatee ci ay jamono mu loolu feeñ dañuy jël texte yi atte ko ci masalan yonente bi sallallahu alayhi wasallam lan la wax daf ne la yashrabanna aqwamun la yashrabanna aqwamun min ummati al xamr yusammunaha bi geyri ismiha mu ne am na ci sama xeet ñoo xam dinañ naan ji sàngara di ko tuddee leneen lu dul turam léegi lan laa bëgg a wax foofu mooy masalan yonente bi ci jamonoom dafa tey dafa xaraamal sàngara te jamonoom du xeeti sàngara yi am ni moom moo amoon ci jamonoom ay sàngara yu déterminé wu yu yem rek moom moo amoon ci jamonoom yoo xam dañ koy nal di ko defar yu ñu xamoon ñoom seen jamono mais bi ñu demee ba suñu jamono yi ay yeneen xeeti sàngara juddu léegi lan la nit ki di wax daf naan léegi atte bi ci sàngara yi la yonante bi jamononte loon rek ci yooyu lañ koy atte waaye sàngara yi ni du ci dugg bokk ci ndax jamono yooyu loolu rek moom moo amoon loolu boo ko waxee kon neenal nga teg texte yi nga xam ne moom moo rot ci di xaraamal alxamr muy lépp loo xamante ne dafa am xukm bi daf koy fekk si moo tax ñu ne alxukm yaduuru maa illatihi xaytu daar maanaam atte bi shaque jour dafay am benn mbir boo xam moom lañ koy lënkaleel mooy doon sabab bi tax ñu atte ko ci mbir mi sabab boobu le saa bu ñëwee ci benn mbir dañuy jël atte bi teg ko ci kawam donte loolu nag du nekk règle boo xam ne règle bu générale la am na ay ay ay exception kon loolu foofu la ñenn njëkk a commencé di bëgg am lu ñuy maanaam génne ci atte ci atte gàllaaj yooyu nga xam ne takk yooyu nga xam ne islaam xaraamal na ko nee na bokkaale la ñenn ñi foofu la njëkk a commencé di ci génne ay exception di wane ne loolu ay mbir la rek yu tënku leneen la ci des bokku ci léegi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku ko def shirk na borom xam-xam yi li ñu koy gën a tekkee li gën a siiw mooy ne loolu day dugg ci ashirkul asgar mooy ci bakkaar bakkaaru bokkaale bu ndaw la mais ba léegi dafa laajaat détaillé encore mais desul itlaaq noonu rek wax ne loolu bokkaale bu ndaw la rek yem foofu ndax kalimatu taallaqa man taallaqa tamima borom xam-xam yi dañ ne taallaq boobu mooy taq boobu bu fekkee taq xol la doomu aadama daf koo takk ci xolam aj ko ci jël xolam aj ko ci loolu mbir moomu mu takk bu boobaa loolu shirk lay doon ndax léegi masala dama la jox exemple bu fekkoonte ni dafa nit dafa jël benn fas wala benn takk mu takk ko def ci ay mbiram ay xarfu fufam takk ko ci këram léegi loolu day dugg ba léegi ci xadis bi mu ne man taallaqa tamima donte takk ko ci yaramam léegi bu boobaa taallaqa boobu takk boobu loo koy tekkee mooy ne daf ko dafa jël xolam aj ko ci mbir moomu le parce que àllaqa shay mooy daf koo lonk daf koo jël aj ko ci benn mbir loolu lay tekki ci arab moo tax boroom xam-xam yi ne léegi kon man taallaqa tamimatan kooku taalluq boobu ñaari taalluq la taalluq boo xam taalluq qalbi la la maanaam benn lonk goo xam nit ki dina ko lonk ci mbir moomu ci xolam bu boobaa shirk akbar lay doon shirk akbar lay doon bu fekkee nag lonk googu ajuwul ci nag léegi ci xolam mais moom dafa jàpp ni rek ci asbaab comme nit ki masalan nu muy ñëwee dem di liggéey wala muy euh, maanaam feebar di jël ay garab di ko utiliser fasul jël garab yooyu mu acc xolam mais dafa jàpp ne ay sabab la yoo xam da koy jëfandikoo rek loolu bu boobaa takk googu doomu aadama bi takkoon shirk asgar lay doon nga gis kon danger bi te shirk asgar buñ ko xeeb shirk asgar akbar min al kabair maanaam bokkaale bu ndaw ci boppam moom moo gën a rëy ay kabair léegi ci kanam tuuti dañ wax bokkaale bu ba dëgg-dëgg sax bokkaaru bokkaale bu ndaw ak bokkaale bu mag taqsim boobu ndax fi'lan taqsim xaaj la boo xam ne mën nañu wax ne lu lu am la dëgg-dëgg wala amul ndax am na tamit beneen ute bu amaat ci diggante borom xam-xam yi ci xaaj boobu ñu xaaj bakkaaru bokkaale bu ndaw bii yàlla dina la ko jégal bii duñu la ko jégal allahu alam léegi kon waat googu nit ki di mën a waat ci ci ci keneen ku dul yàlla wala di takk takk yooyu yëpp loolu yëpp ay exemple la ci bakkaar yi xam ne bakkaaru bokkaale bu ndaw lay doon beneen xaaj bi nga xam ne moo ci gën a am solo te gën cee doy waar mooy li Ibnul Qayyim wax ne huwa al bahru alladi la saaxila lahu Ibnul Qayyim li mu wax ne mooy géej bi nga xam ne amul tefes amul fu mu yem mooy lan mu ne mooy shirk bi nga xam ne yataallaq bil iradat wa niyat mooy bokkaale bi nga xam ne dafay làmboo ak yéene yi nga xam ne joomu aadama bi da ko yéene ak li muy namm ci biir xolam maanaam man ñu toog di wax masalan seen kanam lan laa nam ci jëmmi wax bi may wax nii ci seen kanam ndax dama ci namm jëmmi yàlla ji subhanahu wa taala ngir yàlla subhanahu wa fay ma ngir ñu am yool ñun ñëpp wala lan laa ci jublu loolu nga xam ne dafay dellu ci yéene nit ki mu ne loolu mooy shirk bi nga xam ne moo gën a compliqué ci shirk yi loolu mooy shirkul xafi mooy bokkaaru bokkaale bu ndaw ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam wax na ko ne ne ala unabbiukum bi ma huwa axwaf alaykum indi min al masih dajjal ndax du ma leen wax lan mooy li nga xam ne moom laa gën a ragal ci yéen sax masih dajjal ndax benn bés dafa génn fekk saxaaba yi ñuy waxtaan ci masih dajjal ku nekk ci ñoom di wax di nettali li nga ci xam ak loo xam ne dégg nga yonente bi moo ko ciy wax ak moom bu ñëwee fitna jure ji muy indi yonente bi bi mu génnee fekk lañ ciy waxtaan coow lu bëri lool moom bokk na ci xikma yi nga xam ne yàlla defaloon na ko ko ku mënoon jàngale la dafa mënoon a fekk ay nit mu xëcc seen attention ñu déglu ko mu wax leen loo xam ne duñ ko fàtteeti ba mukk bi mu ñëwee daf leen laaj ci lu ngeen di waxtaan ñu ne ko ñu ngi waxtaan ci masix dajjal maanaam fitna juré jooju nga xam dina ñëw ci axiru zaman mu ne leen ndax loo xam ne moom laa leen gën a ragalal masix dajjal léegi loolu subhanallah doomu aadama boo ko waxee loolu dafay daal di déglu bu baax ak ñaari noppam loolu lan la war a doon ndax bu fekkee li mu ñu jaaxal ba ñun ñu ciy topp di ci waxtaan di ci coow coow lu rëy lii mu ñëw xamal nañu am na leen lu mu ñu gën a ragalal masix dajjal kon loolu lu war a rëy lu rëy la war a doon ñu daal na ko añ kay mu ne ashirkul xafi mooy bokkaaru bokkaale bu ndaw ñu ne ko lan mooy shirkul xafi bokkaaru bokkaale bu ndaw bu sew boobu mooy lan mu ne huwa riya an yaquuma rajul fa yusalli fa yuzayin salaatahu lima yara min nazari rajul ilayhi mu ne mooy doomu aadama bi jug di julli di rafetal julleem maanaam daf ci joxe misaal daf ko tekki ne mooy al riya ngistal ba pare muy tekki ngistal mooy lan mu ne mooy nit ki jug di julli di rafetal julleem fa yuzayin salaatahu am benn eh, nas boo xam ne fa yuhassin salaatahu muy rafetal julleem lan moo tax mu koy rafetal mu ne lima yara min nazari rajul ilayhi ndax li muy gis ne am na ku koy xool loolu mu gis ne am na ku koy xool nit koo xam ne moom moo ngi koy gis loolu mooy sababu li tax muy rafetal jullem boobu mu ne loolu mooy riyaa loolu mooy ngistal loolu mooy nag lu gën a garaaw ci loo xamante ne bi jullit bi dina ko tiit ci boppam lu mel ne li Sufyaan ibnu Thawri daan wax naan maa alajtu nafsi cheyan ashadd alaya min min niyati li annaha tataqallabu alaya doon na wax naan sama bakkan traité wu ma ko ko sellal yéenam ngir yàlla rek tax mais bu demee ba ci biir am ay gaar yoo xam ne da koy gaar ci biir jëf jooju muy jëf ba tax ngistal dugg ci biir jëf boobu boobule léegi ngistal boobu nga xam ne mooy comme na ko yenn boroom xam-xam yi wax comme dañ ko istinbaat ci ci ci nasul xadis mooy tazyinu al ibada bi ruyati nnaasi laha fa yaxmaduuna saaxibaha mooy doomu aadama bi rafetal ay jaamu yàllaam ngir nit ñi gis ko buñ ko gisee daal dina gërëm kontaan ci ki nga xamante ni moo jëf-jëf boobule léegi doomu aadama bu defee loolu rek dugg na ci ngistal léegi ngistal boobu lay lu garaaw la loo xam ne dafay màbb jëf bi nga xam ne moom la ci moom la tàbbi ci jëf boobu yem ci nag bokkul ak shirk beneen bu mag bi ñu doon wax bi nga xam ne moom bu ko nit ki jëfee dafay màbb ay jëfam yépp mais bi dafay màbb jëmi jëf bi mu dugg ndax li yàlla subhanahu wa taala wax ne ana aghna shuraka yaani shirk man amila amalan am na boo xam daf ne man amila lii amalan ashraka maaya fihi gayri fa ana minhu bari fa huwa lilladi ashrak am beneen mu ne taraktuhu wa shirkahu yàlla subhanahu wa taala a wax ci benn xadis ba mu xadis qudsi la xadis nekk saxi muslim mu ne man maay ki gën a doylu ci képp koo xam dañ koy jël di ko bokkaale keneen mu ne man boo ma jëfalee benn jëf boole ma ci ak keneen yàlla subhanahu dama koy bàyyi ak jëf boobu mu ne man damay set ci jëf boobu bàyyi kook moom loolu kon mooy doomu aadama bu jëfee benn jëf di ci bokkaale ak yàlla subhanahu wa taala yàlla day set ci jëf boobu du ko nangu moo tax boroom xam-xam yi ne kon euh, shirkul euh, shirkul asgar muy ngi ngistal nit ki bu ko defee ci benn jëf-jëf boobu dafay màbb yàlla du ko nangu amaat yeneen détails yu ñu joxe ci bu fekkee nit ki dina jóg di jaamu yàlla ngistal ñëw gaar ko ci biir jaamu yàlla boobu muy def mu jéem a xeex ak moom fexe ba delloo ko ndax loolu dëgg-dëgg day tudd ngistal boo xam ne dafay màbbu jëf ñu ne déedéet loolu nit sax daanaka mu mucc ci loolu jafe na nit koo xam ne dafay sellal yéenam ngir yàlla tax ngir mu mucc ci loolu jafe na loolu léeg-léeg doomu aadama na toll ci xaalaat yoo xam ne ci jamono yoo xam ni bu moytuwul dina yëg lenn ci xolam loolu nag boo ko nit ki yëgee dafay jéem a xeex ak moom buuxante ak moom ba mu génn ndax seytaan moom moo ko ci moo ko ciy puus moo taxaat ñenn ci salaf doon wax naan maanaam bokkaale bu ndaw boobu muy euh, al ixlaas bi ngay ixlaas sellal bi ngay sellal ci riya ñu ne mooy li gën a jafe ci bakkanu doomu aadama ndax loolu dafa dëppoo naqaru bakkan ndax bakkan lu mu bëgg mooy lan mooy chaque jour nit ñi di ko yëkkati di ko teg fenn fi di gis ay mat-matam di ko gën a taqdir di ko teg ci yenn bërëb yi léegi bu nit ki xañee loolu bakkanam loolu lu jafe la dafa laaj doomu aadama bi xeex ci ak bakkanam ba ba am loolu te nag léegi shirk yi boobu lu taxoon boroom xam-xam yi ak ñi fi jiitu woon di salafu saalix ñu ragaloon ko lool mooy mucc ci dafa jafe dafa sew lool ndax boo gisee léegi jëmmi toog di wax wala ngay def benn jaamu yàlla nit ñi gis ko nga wan nit ñi gis ko nga rafetal ko wala nga wan ko doomu aadama yi rafetal ko bàyyi leen ci xel ngir ñoom tax ngay def loolu bu fekkee nit ki daf ko melowoo muy comportement bu nekk ci moom loolu fàq la maanaam loolu naafeq la nit ki di doon naafeq boo xam ne da ko yóbbu ci dem ba mu wedd yàlla génn ci islam kon bu caagante ni dafay ñuy wax rek ne bàkkaaru bokkaale bu ndaw la nit ki mën na koy def bu faatoo ñu jégal mais bu fekkee sax na sax bàyyiwu ko loolu da koy yóbbu dem ci nekk shirk bu mag muy bokkaaru bokkaale bu mag ndax bu demee ba yéeneem yàqu carrément nga xam ne dañ na ba moom ay jëfam daanaka sàkkootu ci ngërëmu yàlla doomu rek lay sóoraale ci ay jëfam subhanallah loolu bu boobaa day dem ba génn ci daal di dem ci bàkkaaru shirk bi nga xam ne mooy shirk bi gën a mag léegi loolu dafa nekk nag lu sew loo xam nit ki ngir mu mucc ci jafe na ndax boo gisee léegi borom xam-xam yi dañuy wax ne nit dina def ixlaas fekk mi ngi shirk man nit ki dina sellal fekk ci biir sellal boobu muy sellal sax shirk shirk shirk la ciy def léegi ñu ne masalan ku jàmm yàlla subhanahu wa taala juróomi fan yoo xam ne da sellal sa yéene yàlla dongu tax ngistalu loo ngay julli di saraxe wala ngay woor di def jàmm yàlla yooyu te ko ku yàlla dinañ la jox cassette bi masalan damay jox exemple léegi man ma dégg loolu yoolu cassette boobu ñu ci wax intéressé ma tax ma daal di jug ne naa def pratique boobu maanaam léegi naa jëlee kon juróomi fan yooyu ma def ko ay pratique di jaamu yàlla di sellal sama yéene kon dinaa am cassette boobu ñu wax ne kooku ku def loolu di ko am comme récompense léegi man sincèrement maa ngi sellal sama yéene ci jaamu yàlla yooyu ma def ci diiru ñeenti juróomi fan yooyu mais fil waaqe ci dëgg-dëgg mbir mi maa ngi shirk te ma ko sama yéene boo ko xoolaatee au fond du ngir jëmm yàlla ji moo tax ak ngir li ma yàlla di fay mais kaset bi moom moo tax muy jëf mais loolu lu sew loo xam ne nit ki bu ci bàyyiwul xel dina ci tàbbi dama joxe exemple kaset bi mais nit na xool leneen lu dul loolu rek mu nattale ko ci xelam moo xam ci martaba boo xam ne bëgg na faa àgg wala loo xam ne bëgg na koo am lu mën a doon ci mbir yooyu mu koy séntuwaale ci biir jaamu yàlla bi muy def loolu day dugg ci shirk boobu nga xam ne mooy riyaa ngistal ba léegi bokkaat na ci encore nit ki di jaamu yàlla subhanahu wa taala di wéetal borom bi foo xam ne moog yàlla rek kenn xamul mais moom jàpp na ni loolu jox na ko martaba boo xam ne bu demoon ci nit ñi masalan nit ñi war nañ ko koo war nañ ko koo jàppee war nañ ko faa teg par exemple damay woor nit ñi duñ ko sax xam damay jug guddi di julli damay saraxe doomu aadama yi xamuñ ci dara mais su ma ñëwee ci bërëb bi jàpp naa ne ñëpp war nañoo jug taxaw nuyu ma jugal ma wala jàpp naa ni su ma ñëwee bàyyi xet benn mbokk masalan jugal may ma ma toog wala ñu xajal ma ñoom ñëpp ba ma mën a toog defaluñ ma li nga xamante ni moom laa yelloo léegi loolu lan moo waral man may yëg loolu ne ñoom dañ ma ko war a defal mooy dafa am lu ma yëg ci sama biir muy benn ngëneel boo xam ne jàpp naa ne am naa ko ci ñoom ci sababu sama jaamu yàlla yooyu ma doon def kon léegi man jaamu yàlla yi dafatuma ko rek raxat raxasu si mu nekk sama digganteeg sama borom mais am na beneen euh, affaire boo xam ne jàpp naa ne war naa ko cee mën a am suma ma dajeeg doomu aadama yi ñu defal ma ko ci loolu ba léegi bu doomu aadama bi moytuwul ci loolu loolu da koy yóbbu ba dugal ko ci encore ngistal te loolu mi ngi jege mi ngi gën a jege li ñuy wax al ujub nit ki di yéemu ci boppam amaat na beneen boo xam ne moo ëppaat diqa boobu moo gën a sewaat boobu encore boobu mooy lan mooy masalan comme man nu ma toogee seen kanam di wax nit ki di toog di kanamu nit ñi bi leen wax naan leen mooy tëndiku leen ngistal ndax ngistal lu garaaw la di wax ci ngistal di wane boppam ne moom masalan masalan may toog naan leen man awma xam-xam xamuma dara bërki dem rek laa tàmbalee jàng maanaam ñu laaj ma sax benn laaj ma ne xaw ma ko dem leen ngeen laaj ko diw fekk au fond ci loolu wàcce sam bopp mais li ma ci namm mooy pour wan leen ne man ku am toroxlu laa pour wan leen ne man ku sellal sama yéene laa fekk au fond loolu laa namm ci li ma leen li ma leen di wax bu ko defee nit ñi yéemuwaat ci yow ne mbokk bi de ku ragal yàlla mbokk bi ku sellal yéeneem la parce que laaj nañ ko benn laaj sax daf ñoo delloo ci diw ne moom xamoo ko dégg nga kon léegi mu nekkat beneen maamaa boo xam ni beneen complication boo xam nit ki bu moytuwul ya duya dafay réer ci biir baxar boobu nga xam ne léegi ñaari mbir ñoo nekk sa kanam boo amee tajarru ala allah mooy ngay wax ci loo xamante ne xamuloo ko ñu laaj la nit ñi teew nañ bëgguloo wax ne xaw ma ko nga dugaat ci ngistal mu yóbbaat la ci yeneen yu gën a dangereux mooy nga wax ci waxal yàlla loo xam ne xamuloo ko wala ngay jéem a wane ne da nga am tawaadu da nga wàcce sa bopp baagaat foofu moo tax léegi mbir boobu day delluwaat ci sa yéene sa digganteeg sa borom mais kenn mënu koo jugé ci li feeñ donte nag am na ay mbandarga yoo xam ne nit ki mën na koo gis nii ci kaw doomu aadama bi li muy jëf ndax dañuy wax naan az-zahir unwanul batin liy feeñ ci doomu aadama la plupart mooy mooy adresse li mu fas ci biiram mais loolu nekkul sept jours parce que borom xam-xam usul dañuy wax naan az-zawahir laysat qat'iyatu dalala ala al li nga xam ne mooy feeñ nekkul ne dañuy mën a dog ne lii dafay tegtale li nga xam ne moom la doomu aadama fas ci biiram léegi nit ki dara dina feeñ ci moom fekk du loolu li dëgg-dëgg li nga xam ne la nam moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa ci wàllu ngistal ak yooyu daf ci teeloon a daf ci teeloon teg ay buntu teg ci ay kiiraay nga xam ne munaafiquun yi bi yàlla subhanahu wa taala diglee saraxe ñenn ñi di ñëw di saraxe lu tuuti dañ leen doon xas naan leen lu tuuti li dong ngay saraxe dégg nga di maanaam di di lor doomu aadama yi nga xam ne jullitu yàlla yi nga xam ne ñoom ñoo gëmoon di ñëw di saraxe boo indee lu tuuti ñu xas la ne la yow da ngaa nañ lu tuuti li da ngay indi boo indee lu bëri di saraxe ñu ne da ngistal yàlla subhanahu wa xas leen ci loolu nga xam ne ñoom ñu ngi ko doon def moo tax yonente bi ne lam umar an unaqiba butun an naas wala an ashuqa sudurahum maanaam yàlla subhanahu wa taala digaluma may xotti biiru nit ñi ak di xar moo ci nekk loolu mooy kon li nga xam ne moom lañ fas ci seen biir seen diggante seen borom la waaye du man man maa koy atte kon da nga gis ne bàkkaaru shirk boobu nga xam ne moom la ñuy wax ashirkul asgar encore tamit maanaam lu dangereux loo xam nit ki war na ci moytu salafu saalih ñoom bokkoon na ci liñ doon gën a tiit ci seen bopp ndax mooy nit ki nekk ci kaw suuf di jaamu yàlla xëy na sax doomu aadama yi naw ko lool ba mu àgg ci yenn martaba yi fekk bu deewee day dem ci digganteem ak borom du fekk dara loolu wallahi lu lu garaaw la lu dangereux la moo tax kon nit la nit nit daal war na ci tiit chaque jour fu mu toll ci boppam di jëm a contrôler waat boppam di li ñuy wax yéeneem maanaam di delluwaat ci yéeneem di ko xool fu mu toll ci lépp loo xam ne mi ngi koy waaj a jëf moo tax xadis boobu nga xam ne day wax ne innama al amalu bin niyat wa innama li kulli imrin ma nawa mu ne jëf yi ñu ngi ci yéene yi kéem dayoo jëf rek foofu la wala kéem dayoo jëf yi rek foofu la foofu yéene yi rek foofu la jëf di toll mu ne te itam ku nekk li nga jëf loolu ngay am loolu mooy ku nekk li nga jëf loolu ngay am ci yool ku nekk li nga jëf loolu ngay am wala ku nekk li nga yéene loolu ngay am ci yool xadis boobu borom xam-xam yi dañuy wax ne moom mooy xaaju xam-xam bu fekkee da nga xaaj xam-xam ñetti xaaj ñu ne ñoom moom mooy benn xaaj bi maanaam mooy ceer bi léegi lu tax ñu wax loolu mooy doomu aadama li muy jëf lépp ci ñetti mbir ñoo ko séq lenn li ci xolam lay jóge mooy yéenam lenn ci làmmiñam lenn li ci ay cëram léegi yéene nag moom mooy benn xaaj bi kon boo xaajee xam-xam ñetti xaaj benn xaaj bi mooy li aju ci wàllu yéene rek yeneen borom xam-xam yi si des dañuy wax ne islam ci boppam ci ñetti xadis lañ koy teg ñetti xadis yooyu bokk na ci innamal amalu bin niyat ku mel ne al imam Shafii wax na ci loolu ne maanaam dafay dugg ci lu ëpp sabaina baab min al min al masail aw min al ilm moom al imam Shafii loolu la wax ba léegi borom xam-xam di wax ne rafetlu nañ ci képp koo xam dafay bind téere balaa muy tàmbali mu tàmbali ko ak boobu nga xam ne mooy innama al amalu binniyat ndax mu fàttaliwaat nit ki balaa muy dugg ci di jàng di li nga xam ne loolu la war a pratiquer bu ëllëgee mu jàng xadis boobu ba xam dëgg-dëgg danger bi nga xam ne yéene am na ko bu ko defee bu duggee ci biir téere bi di jàng li nga xam ne moom lay war a xam ci xam-xam di ko jëfee mu teg ko ci kaw yéene bu sell léegi nag bàkkaaru bokkaale boobu nga xam ne mooy bokkaale bu ndaw dafa am uute bu am ci baynal ulama ci borom xam-xam yi ndax nit ki bu ko deewaalee dafay nekk taxtal machia wala dafay nekk xaalit mu xalat fi naar comme bàkkaaru bokkaale bu mag léegi li nga xam ne moom moo sabab euh, euh, uute boobu mooy aaya bi ñu jàngoon sànq seen déggin ci aaya bi yàlla li mu wax ne inna allaha la yaxfiru an yushraka bi yàlla du du jéggale bàkkaaru bokkaale kooku min min min siyaqil min siyaqil umum dafa bokk ci yi xam ne dafa matale ci langue arabe ndax foofu masdar mu awwal la inna allaha la yaxfiru an yushraka bihi an boobu bu ci xarf bu ci fi'l verbe toppee loolu masdar mu awwal lay doon masdar mu awwal mooy lan mooy da nga koy mën a wëlbati jël ko jëlee fi'l bi verbe bi ci boppam da koy mën a boole ak an bi yóbbu ko ci masdar bi léegi loolu lu muy tekki mooy inna allaha la yaxfiru shirkan bihi yàlla du jéggale benn bokkaale buñ ko buñ ko bokkaaleel léegi masdar mu awalu inna allaha la yaxfiru an yushraka bihi mooy inna allaha la yaxfiru shirkan bihi te léegi boo ne inna allaha la yaxfiru shirkan bihi kooku boo delloo ci usul min siixil umum ndax euh, nakira ida waradat fi siixati annafi aw annahi tufidu al umum bu fekkee nakira ci arab maanaam li mu wax ne shirkan nga xam ni amul alif ak lam loolu nakira lay tudd léegi nakira boobu bu ñëwee ci benn phrase boo xam ne phrase bi dañ ciy dàq daf ne laa yaxfiru laa boobu li nafi la dafay dàq léegi bu fekkee nakira boobu dafa wàcc ci benn phrase boo xam ne phrase bi day dàq loolu bu boobaa umum lay doon dafay matale lépp ciy dugg amul lenn luy génn du am exception léegi kon bu boobaa boo tekkee noonu aaya bi amul benn shirk benn bokkaale boo xam ne dina génn ci biir aaya boobu kon xeetu shirk yépp day dugg ci biir aaya bi ne yàlla du ko jégale boo ne inna allaha laa yaxfiru shirkan bihi kon léegi boo te tawilee masdar bi mu nekk inna allaha laa yaxfiru shirkan bihi bu boobaa amul benn benn shirk bokkaale boo xam dina génn moo xam bu ndaw la wala bu mag la léegi ñoom loolu lañ loolu lañ ci loolu lañ sukkandiku ci nekkoon kon yàlla subhaanahu wa taala du jégale bakkaaru shirk boobule léegi nag loolu nag bul ci déggee mukk ne ñoom kon dañ ne ku def shirk bu ndaw boobu anta kaafir danga génn ci islam ba pare tamit dañ ne da nga dañuy wax ne maanaam say jëf dafa màbb boo dee ngay sax ci safara ñoom du ñu wax loolu dañ ne yàlla da ko jégale léegi kon loolu lu muy tekki mooy doomu aadama bu ko faatoo dafay yelloo yàlla subhanahu wa taala mbugal ko kenn lu tolloog bàkkaar boobu nga xam ne def na ko ci shirk bu ndaw boobu bu boobu demee ba yàlla mbugal ko lu tolloog moom bu ko defee yàlla subhanahu wa taala mën na koo jégal mu dem mu dem aljanna waaye jëmmi jégal ko ko moom mu dem directement aljanna du jaar sawara loolu lañ ne loolu du am ndax yàlla subhanahu wa moom moo ne du jéggale bàkkaaru bokkaale bu ndaw boobu wala bu mag bu mën a doon kon ñoom li ñu wax ne yàlla du ko jégal loolu ça ne veut pas ni dañ koo takfiir ne dafa génn ci islaam léegi ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo wax ne yàlla subhanahu wa dafay jégale bàkkaaru bokkaale bu ndaw boobu dañ ne am na texte yu ñëw lu mel ne liñ jàngoon ne inna allah innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna képp koo xam ne bokkaale na yàlla xaraamal na ci moom aljanna loolu ittifaaq la ijmaa la dëppoo goo xam ne boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne aaya boobu bàkkaaru bokkaale bu ndaw du ci dugg bokkaale bu mag rek bokkaale bu mag rek lañ ci namm man yushrik billah ishraak foofu muy bokkaale foofu bàkkaaru bokkaale bu mag dong la bu ndaw du ci dugg li yàlla ne képp ku bokkaale yàlla day xaraamal ci aljanna bokkaale bu ndaw du ci dugg ñu ne ni nga xamante ni noonu lañ xamee ne fii bokkaale bu ndaw dugg fi noonu lañ xamee ne tamit ci aaya bële bokkaale bu ndaw du ci dugg naka noonu tamit ijmaa la ba léegi ci baynal umma wala baynal ulama ne bokkaale bu ndaw du màbb jëfi doomu aadama bi yépp jëf bi nga xam ne ci la ko jëf rek moom lay màbb mais comme li yàlla wax ne la in ashrakta la yaxbatan na amaluk boo fekkente ni bokkaale nga yàlla dina màbb say jëf nga xam ne jëf yi ci kaw ba suuf lépp la yàlla di màbb nee nañ loolu ijma la dëppoo la ci borom xam-xam yi ne bokkaaru bokkaale bu ndaw bokk ci bokkaare bokkaaru bokkaale bu mag rek moom moo ci bokk léegi nag ba léegi tamit da gis ne bokkaaru bokkaale ci boppam du am moisena bay na shirk wala wala amalu saaliha maanaam keroog yowmal xiyaam ni ñuy peesee jëf yi teg jëf yu baax fii teg jëf yu bon fii xool ñoom ñaar ban moo ëpp nga xam ne nit ki bu fekkee jëfam yu baax moo ëpp mu dem aljanna bu jëfam bon ëppee bu ko yàlla jégalu mu dem sawara mu ñu ne loolu du am diggante shirk ak ay jëf yu baax ndax lu tax du am diggante shirk ak jëf yu baax mooy ne shirk ci boppam dafa amul benn jëf buy taxaw ci kanamam ndax moom lu mu fekk da koy màbb léegi loolu bu fekkonte ne kon shirk liñ ci nam rek mooy shirk bu mag du am na baynal euh, jëf yu baax yi muwaz maa ngi wala ak arab lu bëri maanaam du am benn teg goo xam ne dinañ ko teg diggante jëf yu baax yi ak shirk du am léegi li ñuy tekki mooy ne kon bakkaaru bokkaale bu ndaw ak bakkaaru bokkaale bu mag am na benn différence boo xamante ni moom moo am seen diggante bu dee bakkaaru bokkaale bu ndaw mën na am digganteem ak jëf yu baax yi ñu teg leen comparé leen xool ñoom ñaar lan moo ëpp mais bu dee bakkaaru bokkaale bu bu ci nit ki faatoo ala tuul dafay dem sawara mais bu dee bàkkaaru bokkaale bu ndaw moom mën na am digganteem ak jëfi baax yi ñu peese leen nattale leen xool lan moo ëpp bu fekkente ni doomu aadama bi faatu na ci yàlla def mu am jëf yoo xamante ni bii moom moo ko féete kaw yàlla mën na koo jégal mu dem aljanna ñoom ci loolu lañ lañ sukkandikoo ba ne kon bàkkaaru bokkaale bu ndaw taxtal machia dafay mel ne comme kabair yi mooy bàkkaar yu mag yi lu mel ne rey doomu rey nit wala njaaloo wala sàcc wala naan sàngara yu mel noonu bu ci doomu aadama bi faatoo donte ay bàkkaar yu mag la ni ko yàlla mën a jéggalee mu dem aljanna naka noonu bokkaaru bokkaale bu ndaw boobu tim bu ko doomu aadama bi faatoo yàlla mën na koo jégale mu texe yàlla mën na koo jégal mu texe te loolu mooy li gën a wér ci ñaari wax yooyu nga xam ne euh, dégg nañ ko fi léegi allahu alam léegi loolu nga xam ne léegi moom mooy ashirku billah ci ñaari xaajam yooyu nga xam ne xaaj nañ ko ko muy xaaj bu ndaw bi ak xaaj bu mag bi dañu waxoon sànq ne mooy loo xamante ni mooy li gën a ñaaw ci loo xam ne yàlla subhanahu wa taala tere na ko lan moo tax comme ni ko euh, cheikhul islam ibnul qayim al jawziya waxee mooy yàlla subhanahu wa bu mu sàkkee doomu aadama yi li tax mu indi leen fii mooy ngir ñu wéetal ko bañ ko bokkaaleeg lenn te itam loolu mooy dëgg ji nga xam ne ci la asamaan ak suuf taxaw kon lépp lu waroog moom loolu mooy doon li gën a ñaaw ci tooñ yi léegi kon doomu aadama bi dafay daal di jariñu ci loolu ci diggante ak borom ndax nit ki buy jàng wala muy déglu lenn dafa war a jéem a fexe loolu mu mettre ko en pratique maanaam li muy jàng wala mu koy dégg moom mu jariñu boppam laata muy jóg xëy na di tuxal wala muy nettali keneen wala lu mu mën a doon du nekk loo xam ne nit ki da koy xam rek mu nekk ci xelam nii mu xam ko mais lu muy jëfe la ak di ko bàyyi xel nit ki mën na jàpp ne masalan yàlla musal na ko ci bàkkaaru bokkaale bu mag ndax lan lu mel ne masalan jaamu ay xërëm wala jël keneen koo xamante ne ci mbindeef yi ku dul yàlla jox ko lenn ci àq yàlla yi nit ki mën na dem ba jàpp ne na ci loolu loolu dootu ko defati waaye seytaane mën na ko am ci yeneen buntu yoo xam ne ay buntu buntu bàkkaaru bokkaale la ba léegi te bokkul ak buntu yooyu la nga xam ne comme ni ñu ko doon waxee léegi ci wàllu ngistal ak ndégital loolu lu dangereux loo xamante ni ay textes yu bëri ñëw nañ ci léegi nit ki dafay jéem a fexe jéem a seet ay yoon yoo xam ne ci lay jaar pour mën a soigner bàkkaar yooyu nga xamante ni bi wala danger yooyu nga xam ne moom moo nekk ci kanam léegi ci yooyu boroom xam-xam yi dañu ci joxe ay yenn saafara yoo xam ne nit ki mën na koo jëfandikoo ngir mucc ci bàkkaaru bokkaale bu ndaw boobu nga xam ne lu naqaree mucc la mooy ngistal te ngistal bu ñu ko waxee dafay imbaale ndëggatal ndax yonente bi daf ne man raa raa allahu bihi wa man samaa samaa allahu bihi koo xam ne dafay ngistal di dëggatal yàlla dina ko wane ba doomu aadama yi gis ko waaye bu ñu ko gisee yàlla dafay def seen xol yi ñu bañ ko ñu jéppi ko te loolu lu am la loo xam ne par expérience doomu aadama bu fekkee li muy def na mu ci yàlla ngistal moo ko ci intéressé dafay bëgg di defulewu ci nit ñi pour ñu gis ko lu mu yàgg-yàgg nit ñi dañ koy mujj jéppi ndax nit bëggul ku koy wan boppam naka noonu tamit lu wax ne man samaa samaa allahu bi koo xam ne dafay ndéggtal ngir nit ñi dégg ko xam mooy kan moo xam ci lu mu mën a doon mu ne yàlla daf koy déggtal ba nit ñi dégg ko bu ko yi déggee yàlla dafay tàbbal seen xol ñu jéppi ko ñu bañ ko am benn sori boo xam ne dina ko sori ci seen xol yi léegi kon ngistal boobu lay nit ki pour mu mucc ci am na ay ay ay ay ay ilaaj maanaam ay traitement yoo xam ne mën na cee jaar ci borom xam ni ñu ko waxee bokk li mooy nit ki di teewlu fu mu toll mooy istixdaar azamatu rabbi azza wa jal mooy nit ki di teewlu fu mu mën a toll màggaayu borom bi subhanahu wa taala lan moo tax ñu lay wax ne la ngay teewlu màggaayu yàlla te ñiy wax ci buntu bàkkaaru ci bokkaale mooy ne bokkaale ci boppam nit ki bu koy def dafa joxul yàlla cëram dëgg-dëgg jox ndax li yàlla doon wax ci mushrikuun yi naan wa ma qadarullah xaq qadari yàlla dafa doon wax naan ñi nga xam ne ñooy bokkaale yàlla yàlla mën a ñoom joxuñu yàlla dëgg-dëgg àqam fi yàlla war a nekk fa yàlla àgg ci màggaay ñoom teguñu ko fa ndax ku mën a fekk mbindeef bu doy doy waar bu bu ñàkk solo ci mbindeef yàlla yi ngay jël loo xam ne àq la joo xam ne yàlla rek moo ko yelloo nga koy jox teg ci bërëb yoo xam ne yàlla subhanahu wa rek moo fa àgg moom moo ko yelloo lool lu muy tekki mooy ne kon yow tegaloo yàlla fi nga ko war a teg joxuloo yàlla dëgg-dëgg cëram kon loolu la yàlla subhanahu doon wax ci ci yëfar yi ci mushrikuun yi léegi doomu aadama bi kon buy teewlu li nga xam ne mooy màggaayu borom bi subhanahu wa taala loolu dina waral ci moom mu xam ne jaamu yàllaam yi muy jëf ki ko yelloo moom dong mooy borom bi subhanahu wa taala amul benn mbindeef lu mu mën a màgg ak lu mu mën a toll koo xam ne yelloo na ci la gën a tuuti ci ci jaamu yàllaam yooyu léegi say jaamu yàlla nga xeet ci keneen ku dul yàlla ba tax doo ko ci jox dara wala doo ko ci sédd dara mu xool ko mu gis ko mu ñàkk koo gis nga yemale faalewuloo ko mais yow li la ñor ci li ngay def sa digganteeg sa borom la sa gisuloo keneen koo xam ne jàpp nga ni am na leen lum ci yelloo moo tax boo gisee yàlla subhanahu wa ta'ala dafa joxe misaal ne daraba lakum masalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka min shuraka fima razaqnakum antum fihi sawa taxaafunahum ka xiifatikum anfusakum yàlla subhanahu wa taala mu ne yàlla daf leen jox benn exemple ci seen bopp yéen maanaam ci lu bañ a sori mu jël exemple ci doomu aadama yi jox leen ci exemple ngir ñu ngir mu gën leen a jege ngir ñu gën koo mën a gaaw dégg mu ne hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka mu ne ndax li nga xam ne yéen a ko moom muy seen i jaam yoo xam ne da ngeen koo am moo xam da ngeen doon xare ngeen gañe seen i noon yéefar yi ngeen jàpp ci ñoom ay jaam ñu leen di liggéeyal wala doomu aadama jël alalam dem jënd benn jaamam ñëw teg ko ci këram mu koy liggéeyal mu ne sa jaam boobu ndax ci ñoom sa jaam yooyu nga xam yaa leen am sa kër ñu lay liggéeyal dafa ci am ñoo xam ni say ndend lañ say bokkaale lañ yoo xam ne dañuy bokk ak yow wërsëg bi la yàlla wërsëgal dañuy bokk ak yow say soxna dañu bokk ak yow say lal dañu bokk ak yow sa oto dañuy bokk ak yow sa lépp loo am nga xam ne yéen a ci tolloo ni nga ci amee àq ñoom noonu lañ ci amee àq yàlla mu ne ndax loolu yéen di ngeen ko nangu léegi loolu nit ki bu fekkee moom nangu ko ci boppam ne moom àqam ji nga xam ne moo moom muy àq boppam jaamam bu doyadi bi nekk ci kër gi mu koy liggéeyloo kooku amu ci dara waru ko cee fekk si lu dul lu ñàkk fayda loo xam ne moom jël na ko jox ko ko ci bu fekkee nit ki nanguwul loolu léegi naka lay ñëwee fekk borom bi subhanahu wa taala mbindeefam yi nga xam ne moo leen sàkk moom leen sant leen ne lii sama àq la na ngeen ma ko jox nga jël àq yàlla jox di ko jox keneen ci mbindeefam yi léegi yow loolu naka nga ko mën a defee léegi moo tax yàlla subhanahu wa taala joxe exemple boobu ci suñun suñu bopp ngir ñun ñu xalaat ci ba tax ñu bañ a jël loo xam ne àq yàlla la ñu koy jox keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala te keneen ku mën a doon ku dul yàlla rek mbindeef nga ci mbindeef yàlla yi subhanahu wa taala léegi kon nit ki dafa war di teewlu màggaayu yàlla xam ne moom rek moom huwa alladi yastahiqu al ubudiyya yàlla rek subhanahu wa taala moom moo yelloo ñu jaama ko moom dong bañ koo bokkaale ak lenn léegi yow boo teewloo loolu dina tax say jaamu nga jël ko jagleel ko yàlla bañ koo bokkaale ak keneen ku dul moom borom bi subhanahu wa taala naka noonu tamit ixfaul amal qadra al imkan doomu aadama dafa war di jéem a fexe di nëbb ja jëfam kéem kàttanam ndax bokk na ci parce que jëf nit ñaari doomu aadama mën nañ jëfandoo benn jëf kii am 10 kii am 30 ci yool loolu ñu bëri maanaam ñu bëri dañ ci xamuñ ci parce que boo gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn xadis mu ne fadlul aalim ala al aabid ka fadli ala adnaakum am ci beneen xadis mu ne ka fadli al qamar ala saairi nujumi sama mu ne ngëneel bi nga xam ne ku xam ku am xam-xam am na ko ci kaw koo xamante ni bi day jaamu yàlla di xir ci di jaamu yàlla parce que abit la wax ci xadis bi daf ne alal abit abit mooy koo xam dafa yittewoo di jaamu yàlla fu mu toll waaye xam-xamam soriwul mu ne am xam-xam ngëneel bi mu am ci moom ma am ci ki gën a suufee ne mi ngi mel ne ngëneel bi nga xam ni weer wi am na moo leen gën a fës gën leen a leer moom la nit ñi di gis moom moo gën a siiw te itam mooy leeral léegi loolu ku mel ne ibnul qayim day wax ne ndax ki am xam-xam ci boppam du yem ak ki xamul ndax ñoom ñaar mën nañoo jëfandoo benn jëf waaye kii ci kaw teg gi mu ko teg ci kaw xam-xam ak àq bi mu ko jox ak ci jamono ju mu ko def ak ci anam bi mu ko defee yàlla jublal ko ci ay yool loo xamante ne bu fi bàyyi woon jaamukatu yàlla bi mën na fee nekk def ci lu ma diis te du tax mu dab kooku ndax jaamu yàlla yi dafay yokk ci yool yi selon ci na ko nit ki di defee ak ci selon ci jaamu ci jaamu bi ci ban période ci ban jamono la ko defee ndax li ñuy wax ak tafaadul bayna al ibadat loolu baab la bunt la boo xam buntu bu am diqa la bu am précision la bu jafee ràññetle la euh, moo tax ibnul qayim di wax naan xam-xam dëgg mooy ne al ilmu mooy an taarifa xayrul xayrayni wa charru charrayni mu ne xam-xam dëgg mooy nga xam ñaari yiw présenté wu sa kanam nga xam ñaari yiw yi lan moo ci gën wala ñaari mbir yu bon tegu sa kanam nga xam ñaari mbir yu bon yi lan moo li ci gën a bon nga def ko bàyyi bi nga xam ne moo gën a bon leen moo ci gën a bon nga moytandi ko def bi gën a bi gën a suufee ñaari mbir yi teew na sa kanam nga xam ñoom ñaar lan moo gën a baax nga def ko bàyyi bi ci des waxtu wi teew na toog nga sa kër amoo loo def yaa ngi posé wu question jamono jii ma toll naafila moo gën wala ma toog jàng alxuraan aha foofu nag la léegi xam-xam bi nekk dëgg ci jamono jooju de ñoom ñaar ban nga war a jiital yool wi gën a bëri ñoom ñaar ban nga war a jiital ngir yool wi gën a bëri léegi doomu aadama bi bokk na nag ci yi nga xamante ne bi dafay yëkkati jëfam yool bi gën a bëri mooy mu koy nëbb kem kattanam muy nëbb ay jëfam kémtalaay kattanam ngir doomu aadama yi bañ di ci bañ di ci bañ di ko gis ndax bu fekkee yow sa digganteeg sa borom moo tax ngay jëf da war a jëm a fexe di xir chaque jour di nëbb say jëf ba doomu aadama yi dañ ko gis ndax bu ko nit ñi di gis foofu la la seytaane di jaaree ba mën la ba nga commencé dugg ci buntu ngistal moo tax yonente bi mu waxee ci sabaatun yudilluhum llahu taxta dillihi yawma la dilla illa dillu juróom-ñaar ñi nga xam ne yàlla daf leen di keral ci suufu keram yawmal yawmal qiyaam mooy bis boobu nga xam ne kenn du am ker ku yàlla tudd na ci rajulun tasaddaqa bi sadaqa fa axfaaha xatta la taalama chimaalu ma tunfiqu yaminuhu mu ne nit koo xam ne dafa jël sarax génn ko ci loxo ndeyjooram mu joxe ko nëbb ko nëbb boo xam ne mu ne càmmoñam sax xamul lan la ndeyjoor bi di joxe loolu kon daf lay tegtal lan mooy dëgg-dëgg dayoo bi nga xam ne nit ki di jëf lu baax nëbb ko am na ko naka noonu tamit mu ne rajulun dakara allaha xaaliyan fa faadat aynaahu nit koo xam ne dafa wéet moom dong foo xam ne digganteem ak boroomam rek la mu fàttaliku yàlla ay rongoñam tuuru loolu dafay tegtale dëgg-dëgg ne doomu aadama bi am na ragal yàlla teewlu na boromam mi ngi jooy foo xamante ni doomu aadama yi nekkuñ fa digganteem ak boromam la naka noonu bokkaat na ci yi nga xam ne dina la gën a dimbali ci doomu aadama bi mucc ci buntu bàkkaaru bokkaale yooyu ba léegi nga moytandiku ñu lay tagg ci say jëf yi nga xam ne yaa ngi koy jëf di ay jëf yu baax tagg la maanaam ñi nga xamante ne ñooy almaddaaxuun ñiy taggaate dafa am ci nit ñoo xam loolu seen nature la dañuy gaaw a ci nit bu ñu yéemoo ci yow duñ ko yemale seen biir xol waaye dañ lay tagg yonent bi daana na def bu gisee ci nit loo xam yéem day wax macha allah daan na wax naan laa tajabu bil abd bu leen di yemu ci nit ki te xamoo leen fan lay mujjee bu leen di yéemu ci nit te xamoo leen fan lay mujjee ndax nit mën nga koo gis mu sax ci lu baax di ko jëf nga yemu ci moom fekk fi'lan du mujj ci jëf ci yiw woowu ak ci mbaax moom nga xam yaa ngi koy gis ci moom léegi nag dafa am ci nit ñi ñoo xam ne bu ñu la gisee dañ lay yéem te bu ñu la yéemee dañ la koy wax loolu nag nit doomu aadama bi bu fekkee dafa bëgg yàlla musal ko ci ngistal dafay jëm a fexe ba dagg loolu ba du may ci nit ñi loo xam ni du leen may ci boppam loo xam ne dinañ ko jël di ko tagg di ko tuddal ay jëfam yu baax ndax sa jëf yu baax sa digganteeg sa borom la da ngay jéem a fexe ba doomu aadama yi bañ cee dugg sa digganteeg sa borom di la yàqal say jëf moo tax yonente bi doon wax naan bu ngeen gisee ñi nga xam ne ñoom ñooy taggaate jël leen suuf ngeen xëpp ko ci seen ci seen gémmiñ yi loolu fexlan loo xamante ne lu am la ku mel na Cheikh Nasruddin Albani ci téeram boobu nga xam ne Cheybani benn kenn ci ci ci ndongaama mi ñoom ñoo ko bind daf ciy nettali maanaam téere bi léegi nu ko nu ko ndongaa taalibe bi bindee dafa dem ci yenn masaayix yu bëri yoo xamante ne min kibaaril ulama ci jamono ji mu ne leen pour ñu bindal ko ci Cheikh Nasiruddin al Albani luñ ci xam ñu seede ci moom ay seede yu rafet kenn ci ñoom dafa wax dafay bokk ci seede yu muy seede mu ne mës na di dox ak Cheikh Nasir ci foo xamante ni genre àll la ñoom ñaar ñuy def lu mel ne promenade di doxantu ñuy doxantu ba mu yàgg nee na ci biir waxtaan ma koy wax naan ko yow bu fekkonte ni masalan tey nekkuloo woon ci kaw suuf ak bu rëy bi nga xam ne liggéeyal nga ko islam kon islam dina tumuranke lool maanaam kon naka nga sentir ni islam dina ko tumuranke ak ni nga dekkilee sunna ak yooyu nee na ma yëguma lu dul rek cheikh bi jël suuf xëpp ko sama gémmiñ ngir jàpp ne kii lu mu koy wax ni da koy tagg fialan loolu tatbiqun amali lil xadis maanaam cheikh bi dafa appliqué xadis boobu ci ci waa jooju la nga gis ne kon loolu dangereux la nit ki di di bàyyi doomu aadama bi muy dugg ci ay jëfam bokkaat na ci yi lay gën a dimbaliwaat nga jéem a xeex ak sa bopp parce que am na ci ci ngistal lu bëri loo xamante ne aussi ci sa bakkan lay dellu ndax bakkan doomu aadama ci boppam daf koo bëgg dafa bëgg ñu koy yëkkati da ko teg fenn fi moo tax doomu aadama bi dafay jéem a fexe fu mu toll di def dabtu nafs su nafs di jéem a fexe di téye boppam moo tax ba su yonent bi doon wax naan al iman as sabr wa samaaha di wax ne ngëm yàlla mooy muñ ak jéggale ak nekk nit ku yaatu koo xam da ngay jéggale léegi muñ ci boppam lu tax yonent bi ne mooy al iman as sabr mooy ne muñ ci boppam xabsu nafs téye sa bakkan mooy diine ndax diine yàlla subhanahu wa daf laa digal ay mbir tere la ay mbir di la teg ay mbir yoo xamante ne ay aqdaar kawniya la ñetti mbir yoo yëpp danga nga ciy muñ yàlla lim la digal ne la na ko def da nga ciy jéem a yar sa bopp tàggat ko ci ngir mën cee sax di ko def lim la tere ne la bul ko def sa bakkan da ko bëgg nga war ko cee téye xañ ko ko ba du ko def yim lay wàcceel ci sa kaw ci ay ci ay mbir yoo xam ne ay nattu la da nga ci war a muñ ngir mën koo tolérer sant ci borom bi subhanahu wa ta'ala xam ne moom moo am sañ-sañu teg ko ak yeneen yu bëri ay bunt yoo xamante ni doomu aadama bi war na di ko fàttaliku fu mën a toll di ko jëfandikoo comme ay moyens yoo xam ne da ciy jéem a yar boppam traité ko ci pour mucc ci bakkaar bu rëy boobu nga xam ni saalixoon yi ñi nga xam ñoo doon gaa yu baax yi bokk na ci li doon gën a tiit ci seen bopp léegi mën naa wax ne daanaka waxtaan wi ci boppam loolu moom moo ko jël dëgg-dëgg ndax mooy li nga xam ne moom moo ñu gën a concerné que ñuy détaillé lool lool lool bi nga xam ne mooy shirkul akbar donte boobu moo am danger moo gën a dangereux mais mën naa wax ne am na ci beneen côté tamit bii shirk boo xamante ni bu dangereux la ndax moom moo gën a naqaree mucc ndax bale nga xam ne mooy shirkul awsaan bokkaale bi nit ki di bokkaale lu mel ne taaxut comme ñenn yi dox wax naan alxukm bi bi gayri ma anzal di lim naan ay al awsaan ibadatul awsaan rayal keneen ku dul yàlla nasral keneen ku dul yàlla yooyu yëpp ay anwaau shirk la yoo xam ne mënoon naa toog di ci dugg di ko détaillé di wax ne bii borom xam-xam yi nee nañ shirk la bii borom xam-xam yi nee nañ shirk la mais lu ëpp ci loolu tey ci ñun ñii di dund nii jamono ji loolu yàlla def na set nañ ci mais nag li nga xam ne moo ëppaat danger ci bu nit ki dépassé marxala boobu étape boobu di jéem a sellal digganteem ak boromam surtout di xenc yoonu sunna mooy li nga xam ne moo nag dox ci digganteem yéeneem ak boromam subhanahu wa taala nga xam ni foofu la ko seytaane di jéem a kale nga xam ne moom léegi tasfiya na setal na ay jëfam ba mu set jëf yi lépp mi ngi koy jéem a teg ci alxuraan sun na léegi nag yéene bi soo a ñëw muy ndiwaat yeneen problème yoo xam ne nit ki dina ko jànkonteel kon mën naa wax ne liñ liñ liñ doon liñ doon waxtaanee tey fàttali la mais du conférence wala dars leçon boo xam dañ ko ñëw di ko joxe ndax préparé ma ko sax préparation ñëw di joxe leçon loolu taxu moon a jóg mais li tax ñuy waxtaan mooy lan mooy fàttalante suñu bopp ba sàmm suñuy jëf ngir seytaane bañ ñoo mën suñuy jëf di neen buñ deewee di perte mais ñu jéem a fexe sàmm suñu jëf ba yàlla subhanahu wa bu ñu deewee dajeek moom mu kontaan ci ñun daal di ñuy fay aw yow ñu texe yàlla nañ ko yàlla subhanahu wa defal loolu mooy lu nga xam ne jàppoon naa ni moom laay wax donte mënees nañoo wax mën waresoon na mën a wax lu loolu mais xëy na ñun suñu gàttañlu ci wàllu xam-xam moom moo tax ah, subhanaka allahuma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk خلاص لا بأس الحمد لله الحمد لله العالمين mbokk yi ñu ngi sant borom subhanahu wa léegi li nga xamante ni moom la ñu mbokk ñu doon fàttali pour ñu ko moytuloo ndax yàlla moo ñu ko moytuloo maanaam ñu ko koy moytuloo di ko moytuloo mbokk yëpp di leen ñaan yàlla nañ ci yàlla muccal yaa si fi la aw yaa isaani mbir yi du nit ki moom mooy am capacité mun cee muccal boppam laa kalla léegi mbir yi yërmaande yàlla day wàcc ci sa kaw yàlla baaxal nga mun cee mucc mais doomu aadama neen maanaam mënul mucc ci yenn yi bu fekkee ne deful effort mu ñaan yàlla subhanahu wa taala kon bul na man su ma fi jógee sama man sama bopp dong dinaa mucc ci mbir yi déedéet ngay ñaan amaana boo leen ko laajee dina leen ko leeral ci yenn ñaan yi muccoon nit ki ci bokkaal imma bu ndaw wala bu mag donc léegi loolu bu ko waxee c'est pour ñu xam ni mbokk mi maanaam daf ñu doon fàttali en même temps di fàttali boppam te léegi lii boo leen dégloo moom dafa tënk loolu day wane ni buntoo bu ñu ibi pour nit ki jóg dem jàngi ko la ca gën a tuuti mu xam ko ba la ca gën a rëy kon loolu man dama koy dénk sa mbokk maanaam dama koy dégg maanaam mbokk yi ak teewal amaana nag ci waxam am na lu nit di bëgg mu leeral ko loolu la gën a sàpp nit ki mu laaj ko donte bu ñu tënk nit ki ne ko li ngay laaj mais nag dañ ko am benn stratégie bu gën a simple mooy nit ki préparé na benn wax rek amee loo koy laaj yemal ci bunt boobu moom moo gën donte leneen boo ko bëggee laaj mën nga ko ko laaj ndax kii dafa am lu gën a jàppandal hmm? léegi loolu dañ leen koy ñaax te aussi ñu bañ a ay laaj daal <laughs> yaa fi ay laaj baaxul day sonal nit kii laaj am wala aussi day sonal ki ñuy laaj parce que laaj boo ko inventé rek mu lënt kon ñu bàyyi ci xel bu baax ku fi laaj na fekk da ngaa pare pour jëfe wala nga pare pour jotee ñu nga xam nga léegi man dama doon laaj euh, lu jëm si benn xaalis bi nga xam ne jotoon naa gis si Sahih mbokk bi nga xam ne euh, saxaaba bi nga xam ne moom moo indi jals dama si gisoon bi maanaa mu ne da bi maanaa julli ngir feeñal bi nga xam ne mooy sunna maanaa leeral sunna bi léegi foofu noonu est-ce que gis san da siy dugg wala genre bi la euh, fekkee daal mënuñu si dara euh, ñaareel laaj bi mooy ñaan bi nga xam ne yonent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam bi maanaam joxe na ko pour ñu mucc si li nga xam ne mooy shirk te wax na ne fitne shirk bi nga xam ne mooy ay riya mm-hmm. doon na nga xam ne moo gën tar bi nga xam ne mooy fitne masih dajjal te diggal nañu bi maanaam bu fekkee ñu ngi julli mucc si li nga xam ne mooy moom euh, musiba si nga xam ne mooy fitna masix dajjal mm-hmm. est-ce que foofu tamit duñ mm-hmm. si déggee ni tamit dañu war bu fekkee ñu ngi julli ñaar boobu nga xam ne diggal na ko ñu pour ñu mucc si shirk ñu koy indi le plus souvent إن الحمد لله وبحمده والصلاة والسلام على عبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ووفده léegi lu nga njëkk a laaj mooy xadis damaa ngi julli waaye sax namuma julli dëgg lu dul ne dama leen bëgg a jàngal julli yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la saxaabi bi wax loolu mooy at tashrik fi l ibada loolu la borom xam ne di wax ngay jëf benn jëf yàlla subhanahu wa taala mooy tax ngay jëf jëf bi mais am beneen yiw woo xam ne mën nga koo lëkkaleeg yool boobu nga di ngay am ci jëf bi nga lëkkaleeg kook moom maanaam jëmmi jëf bi def nga ko ngir yàlla mais nga am ci ñaari avantage mooy avantage yu julli ngir yàlla tax ak ngir jàngale julli loolu mooy at tashrik fi l ibada am na loolu dalilam li tax mu mun a nekk mooy bi sallallahu alayhi wa daf doon wax naan inni la adxulu fi salaa wa inni la uridu an utila salaa day wax ne man dinaa dugg ci julli te li ma bëgg mooy guddal julli gi ba mu gudd lool mu ne fa asmau bukaa sabiyin fa atajawazu fi salaa mu ne bu ma demee ba ci biir julli bi ma dégg benn xale buy jooy fa atajawazu fi salaa ma daal di gàttal julli gi li ma alamu min wajdi ummihi um, min wajdi ummihi ngir loo xamante ni dinaa ko xam ci tar ak diis goo xam ne jooyu xale boobu di jooy dina ko metti ci kaw yaayam ndax soxna yi daan julli si ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ daan dugg si jàkka ji ak seen doom yu ndaw bu ñuy julli yonente bi guddal julli gi seen doom yi di jooy loolu dafay dis ci ñoom yonente bi mu ne loolu tax ma gàttal sama julli beneen dalil mooy ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na taxaw kàbbar di julli am ñoo xam dañuy dem di jàpp ji mu guddal julli bi fahimta mu guddal julli bi ngir ñooñu mën fee pare seen jàpp ñëw ñëw ñëw daal di ànd ci julli googu léegi da nga ndax loolu shirk la léegi masalan ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam guddal googu mu guddal julli bi yàlla taxul daf koo def ngir benn profit benn intérêt boo xam ne moom moo ci am mooy ñi ñi ñiy jàpp ñëw bokk ci julli gi wala nga ne kon gàttal boobu mu gàttal julli bi te bëggoon koo guddal loolu shirk la ndax daf koo def defu ko ngir yàlla waaye daf koo def ngir xale boobu di jooy déedéet loolu mooy ak tashrik loolu ba léegi ci buntu yi nga xam ne buntu yi am yi nga xam day laaj nit ki am fiq am dégg ci diine Euh, lay bokk ba léegi mooy nga mën a def jaamu yàlla bi am ci ñaari avantage wala ñett sax wala lu ko ëpp te lépp di delluwaat ci ay bunt yool ak ay yiw yoo xam ne du yàq sa jaamu yàlla waaye dafay nekk lu baax moo tax yàlla ne laysa aleykum junahun an tabtagu fadlan mi rabbikum ci aj yàlla bi muy wax naan dem leen ngeen aji ji daf ne amoo leen benn bàkkaar su fekkente nit ki dafay dem di aji ji bëgg a commerçaler ngir amaale xaalis fahimta maanaam jullit bi mën na jóge fii dem di aji ji yóbbaale benn fond bu demee mu commerçaler ci biir aj bi loolu du yàq yéeneem bu fekkente ni yéene aj moo ko tax a jóg ngir yàlla moo tax muy aj mais loolu muy amaale comme bénéfice ci aj ji ak xaalis boobu loolu beneen yiw la woo xam ne dafay duggaat ba léegi ci aj ji du ko yàq fahimt léegi ñaareelu laaj bi mooy lan wallahi nasitu aywa léegi loolu nga wax ne mustu ci shirk masalan mu waxee loolu xadis boobu ne ndax du leen wax loo bu ngeen ko defee yàlla musal leen ci ñu ne ko añ kay maa da ngaan allahuma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa wa astaghfiruka mimma la aalam yàlla maa ngi lay mustu ci ma bokkaaleel ma bokkaaleeg yow te fekk maa ngi xam li nga xam ne itam def naa ko ci bokkaale te xaw ma ko maa ngi la koy jéggalu ngir nit ki mucc ci ci ci bokkaale loolu ñaan boobu yonente bi daf koo mu nekk lu général tënk ko ci julli wala ci biti julli nit ki mën na ko ñaan ci julli mën na ko ñaan furul julli maanaam du caagante ni masalan yooyu yonente bi ñeenti mbir yooyu yonente bi wax ne nañ ko ñaan ci nañ ñaan ci masix dajjal yooyu rek la nit ki war a ñaan mais yow tu libre sa biir julli nga muslu bu la neexee fudul sa julli nga muslu ci riya mais yonent bi dafa tudd ñeenti mbir rek ne nit ki balaa muy sëlmal na ci muslu kon ça ne veut pas ni am na leneen lu gën a lool rek kon nit ki par la force bu fekkente ni muslu na ci ñeenti mbir yooyu rek lu ko gën a dangereux tamit da ko war a muslu loolu lay sa bi waajib mais mi ngi dellu ci doomu aadama bi ci boppam allahu alam al isbal isbal dafa am ñaari isbal léegi isbal ci boppam luñ ci nam buñ koy wax mooy nit ki buubal ay ay ay tubayam duñ wax sax buubal ay yëreem mais mooy mu sol yére boo xam ni dafa dafa dépassé ay dojoram loolu yonente bi sallallahu alayhi wa ci boppam moom moo ko moom moo ko tere moom moo ne izaarul al muslim ila ansaafi saaqihi am ci benn kii mu ne ila nisfu saaqihi mu ne yëre jullit mi ngi yem ci diggu yeelam mu ne nag amul laa xaraj fi ma bayna al saq ila ila al ka'bayn amul bàkkaar boo xam ne dina nekk ci lu dox ci diggante ñe e, diggu diggu yel bi ba ci ñaari dojor yi diggante boobu yëpp nit ki bu ko neexee yëreem fu mu mën a toll baax na fekk dépassé wul ñaari dojor yi lu ko dalee ci diggu yel bi ba ci ñaari dojor yi yëreem mën na yem foofu ci diggante boobu moo xam ci diggu yel bi la koy teg wala mu gën a suufe wala mu gën a suufe mais bu mu dépassé ñaari dojor yi ndax yonente bi moo ne fama asfala min al ka'bayni fa fi naar loo xam ne weesu na ñaari dojor yi mi ngi ci sawara léegi foofu itlaaqu shay wa iradatu saaxibihi la maanaam dañu tudd dara te liñ ci namm du moom mais boroomam lañ ci namm mooy lu mel ne la yonente bi waxoon ni waylun li aqaabin fi naar aw min an naar waylun lil aqaabi min an naar yonente bi daf ne woon maa ngi gis ay dojor yoo xam ne day sawara ñel na ko boroom xam-xam yi lu ñu wax mooy ne dojor yooyu seen i borom dañ doon jàpp seen njàpp matul raxasuñu ko yonente bi mu xoolee seen seen dojor yi seen tànk yi tooyul yonent bi bëgg leen wax ne nañ ko tooyal mu ne leen maa ngi xam ne day am na fi ay dojor yoo xam ne sawara ñel na ko léegi lan la borom xam ne tekkee waylun lil aqaabi min an naar mooy ne am na boroomi dojor yoo xam ne sawara ñel na leen ndax bu fekkee ñoom continué nañ ci seen jaamu googu ñuy jaamu di jàpp di jàpp njàpp loo xam ne matul dem di julli ji ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy borom dojor yi ci boppam borom tànk yi ñoom ñoo dugg biir sawara du caagante yi la jël rek yóbbu ko biir sawara la ko ko kon léegi lu ñu namm ci fama asfala min al kaabayni fa fi naar lu féete suuf dojor yi loolu safara la jëm du caagante ni sa yére bi nga xam ne moom moo dépassé ñaari dojor yi yére boobu la ñuy jël lakk ko mais yow sa bopp nga xam ne yaay borom dojor yi ak la féete suuf yow lañ xupp ci mbugal boobu nga xam ne mbugalu safara la léegi nag yonente bi ci boppam waxoon na benn saxaabi ne ko laa tajurra thawbak fa innahu min al maxila ne woon na benn waay bul diri sa yére ndax loolu dafa bokk ci rëy rëylu loolu lan moo tax ma tudd xadis boobu mooy ne dafa am ñoo xam ne dañ ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam bi ko Abu Bakar waxee ne ko léeg-léeg dafa may dal sama yére di buubu illa an ataahadahu lu dul ma bàyyante bàyyanteeg moom xel di ko fàttaliku saabu buuboo ma yëkkatiwaat ko yonent bi ne ko bokkuloo ci ñu koy def ngir rëy-rëylu ak beneen wax ju mu ne man jarra thawbahu xoyalan lam yarax aw laa yanzuru llahu ilayhi koo xamante ne bi dafa buub yéreem ngir rëy-rëylu yàlla du ko xool yowmal qiyaama léegi ñoom ñu ne kon lii rabtu bi bil illa maanaa atte bi dañ koo jël tënk ko ci sabab bii koo xam ne dafa def mbir mi ngir lii rek kooku moom moo yelloo àtte bi ñu ne la déedéet lii lu muy tekki mooy ne jëmmi jëmmi buubal yére ci boppam rëy la maanaa jëmmi buubal yére ci boppam nit ki bu ko defee dafay dafa bokk ci màndargay rëy ndax beneen xadis bi ñëw ne laa tajurra thawbak fa innahu min al maxiila xadis boobu nekk ci sunu tirmidi nga xam daf ne bul buub sa yëre ndax buub sa yére boobu day boo ko defee xamal ne dafa bokk ci rëy rëylu léegi maanaam fii dafa dafa ñëw nekk loo xam ne mutlaq détaillé wu ko mu ñëw ci beneen xadis mu détaillé wane ne jëmmi jëf bi ci boppam moom moo bokk ci réeréeru wax nit ki daf ci war a bàyyi xel ak itam roy ci yonante bi sallallahu bokk na ci melokaan ko doon melal moo ne yëreem da daan ñëw ba ci ay melokaanam la yoo xam ne boo delloo ci wax ci chamailu nabi sallallahu alayhi wa sallam ci melokaanu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ay yëreem foofu la daan yem kon loolu yow nga roy ci sa yonante sallallahu alayhi wa sallam da nga ciy am yool ak itam def ndigalam ak itam moytandiku xupp boobu nga xam ne ñëw na ci tere woowu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere allahu alam aanallahu alayhi tey kii mu ne dafa mos a tudd ne yàlla dafa am loxo daal léegi benn waaye ne ko tuubal ci loolu te nga waxaat ashhadu an la ilaha illallah ndax li fekk mu ne yàlla dafa am loxo léegi nee na waa ji ko tuubloo ci wax joojee waa ji dafa tegtaloo ci waxu kenn ci saxaaba yi daal ci mm-hmm. Ibnu Abbas léegi mu lii moom na léegi waxu temps bas. déedéet léegi loolu wax. léegi waxu Ibn Abbas bi mu tegtaloo man xaw ma ba xam waxu Ibn Abbas la wala du waxu Ibn Abbas allahu alam mais li ma xam mooy ne sax na ni yàlla subhanahu wa taala dafa melowoo loxo am loxo yàlla subhanahu wa taala wax iblis na ko maa manaaka an tasjuda li ma xalaqtu bi yadayya lan moo la tere yow iblis nga su jootal loo xam ne man maa ko sàkk ci samay ñaari loxo kon moom borom bi subhanahu wa taala moom moo melal boppam ne dafa am dafa am loxo kon du caagante nit kii nga xamante ne moom moo wax ne yàlla dafa am loxo moom moo sosal yàlla subhanahu wa taala ne dafa am loxo ba tax ñu koy tuubloo léegi kooku nag lu mu war a discuter mooy loxo yooyu yàlla subhanahu wa tudd ci alquran ndax léegi dañ koy melal yàlla ne moom ay loxoom la ndax moom moo ne dafa sàkk euh, dafa sàkk aadam ci ay loxoom wala du ay loxo ñoom seen taxawaay ci texte yooyu nga xam ne moo ñëw ci alxuraan ak sunna di melal yàlla ay melokaan dafa uute am na si ñoom ñoo xam ni dañu ñëw ci texte yooyu di ko taatil mooy dañuy ñëw dàq ko yàlla daf ne am na ay loxo ñoom dañu ñëw ne la yàlla kenn du ko melal ne dafa am ay loxo ndax boo ko waxee da koy nuróole ak mbindeef yi ndax mbindeef moom mooy am loxo ñu ne toyib ñeneen ñëw ne loxo yi deesu ci namm ay loxo waaye doole lañ ci namm quwa am na ñoo xamante ne nee nañ di quwa mooy neema lañ ci namm masalan mooy xéewal nga xam ne yooyu yëpp day dugaat ci baabu taxrif nga xam ta taxrif moo am ak taatil léegi ñoom loolu nekk seen taxawaay mais taxawaay bi jub bi nga xam mooy xawaay ahlu sunnati wal jamaa te moom moo ñu euh, gën a intéressé ci mbir mi mooy ne ñoom bu buñu nee bu yàlla subhanahu wa taala waxee ci quran ne yàlla dafa am ay loxo moom moo sàkk aadam ci ay loxom dañ naan borom bi subhanahu wa taala dafa am ay loxo léegi loxo yooyu moom moo ko melalal boppam kon ñun dañ koy melal ne moom ko am ay loxo la léegi nag tontu ñi nga xam ne ñoo ne boo nee yàlla dafa am ay loxo dama ko nuróoleeg mbindeef yi dañ leen di wax neen yéen di leen dugal ci lii mooy mooy li ñuy wax ne aslu taatil ak tamsil mooy ne li leen yóbbu ci ñuy dàq ne yàlla amul loxo di ko bañ a melal ay melokaanam mooy ne ñoom dañoo jàpp ne melokaanu yàlla yi subhaanahu wa dafa niroog melokaanu mbindeef yi boo ne gisub yàlla bëtu yàlla dañu yaakaar ne bët yooyu dafay niroog bëtu mbindeef boo ne loxo yàlla pour ñoom loxo yooyu dafay niroog loxo mbindeef ndax ñoom dañ yaakaar ne loxo li ci existé rek mooy liñ ci xam mooy suñuy loxo ñun te même doomu mbindeef yi nga xam ne yàlla sàkk na leen rek ci ci àdduna bi boo xoolee ñoom ñëpp seeni loxo ku ci nekk yàlla bindal na la ay loxo boo ko tegoon nga comparé ko di nga gis ne am na différence bu rëy bu am seen diggante ci seeni loxo te kenn ku nekk ci ñoom am na loxo bu fekkee mbindeef yi ci seen bopp seeni loxo nuroowul sa loxo ak ay loxo géléem nuroowul sa loxo ak loxo fas nuroowul sa loxo ak loxo leneen nuroowul te moom am na loxo am nga loxo amoo droit moom amul loxo ndax loxo liñ ci xam mooy say loxo kese leneen lu loxo du loxo kon naka yàlla mi nga xam ne moo gën a màgg lépp lu mën a am dañuy wax ne yàlla moom am na ay loxo te loxoomam ñu roowul ak loxom bindeef ndax suñu loxo yi loxo yi doy de la yoo xamante ne ñun ñun la ñel ñun la ñun la méngool waaye yàlla moom am na loxo yoo xam ne dafa méngoo ak jëmmam ji na mu màggee ak jëmmam ji na mu sellee moom buur bi subhanahu wa taala ndax maa yuqaalu fi zaat yuqaalu fi sifaat isbaatan wa wa nafyan maanaam bu fekkente ni yàlla subhanahu wa taala xamuñu ñun jëmmi jëmmam ji nu mu mel kenn mun ci ñun gisul yàlla ba mën a xam moom jëmmam ji nu mu mel kon kenn ci ñun mënul xam jëmmi melokaanu yàlla yi naka la mel ba di ko melal ne nii la mel wala melul nii kon dañuy wax ne ni jëmmam ji mel ak ni mu màggee moom borom bi subhanahu wa taala noonu la ay jëfam mel dañuy wax tamit ki nga xam ne mooy wax loolu ne ko yow ndax di nga melal yàlla ne moom ku am la am na jëmm bu ne yàlla am na jëmm ñu ne tayib ni nga melalee yàlla ne am na jëmm te du noonu nga melalee mbindeef yi ne am nañ jëmm danan waaw ndax yàlla am na zaat li ñuy wax zaat fil arabiya yàlla am na zaat mooy jëmm doomu aadama yi ak mbindeef yi tamit am nañ jëmm léegi yow ni nga mën a saxalale yàlla ne ku am jëmm la saxal mbindeef yi ne am nañ jëmm te loolu waralul nga jéem nga nuróole mbin jëmmu yàlla ak jëmmu mbindeef yi noonu nga war a nangulee ne yàlla subhanahu wa taala am na ay melokaan te melokaanam yi nuróowul ak melokaanu mbindeef yi kon ku nekk ci ñoom borom bi subhanahu ay ay melokaanam dafay dellu ci jëmmam ji nu mu màggee doomu aadama bi wala mbindeef yi seen i melokaan dafay dellu ci seen jëmm nu mu doyadee mais bu yàlla subhanahu wa waxee ne am na am na ay loxo des koy saxalal ne am na ay loxo ci li nga xamante ne noonu la rotee ci alxuraan ak ci sunna deesu ko daq waaye itam deesu ko nuróole ak mbindeef yi wala ak doomu aadama yi dañ ko koy melal kem ni nga xamante ne noonu la noonu la mel ci jëmmam ji yuridu ndax tawdihat xawla ish hmm? shurbu dawa hal yadxul la abadan ya ma kii dafay laaj naan naan ay garab ndax dafay dugg shirkul asgar kii min al axdi bil asbab maanaam léegi yàlla subhanahu dafa digal doomu adama bi yonente bi sallallahu te daawoo yonente bi moom moo ne yéen doomu aadama yi faju leen te daawoo fa inna allaha lam lam lam yanzil dawaan illa anzala maahu dawaa fa inna allaha lam yanzil daan illa anzala maahu dawaa alimahu man alima wa jahilahu man jahila daf ne woon yéen doomu aadama yi na ngeen faju ndax yàlla wàccewul benn feebar lu dul wàccewaaleel na ko loo xam ne moo koy saafara mën a saafara boobu ñu ko xam xam nañ ko ñu ko réere réere nañ ko kon li nga xam ne day delluwaat rek ci ci asbaab mooy ci moyens yi nga xamante ni mën nañ koo jëfandikoo ngir fajoo ko te delluwaat ci wàllu loo xamante ni islam da ko xaraamal muy aju ci wàllu sixr muy njabar wala yu mel noonu loo xam dafay ajuwaat ci wàllu bokkaale loolu la islam xaraamal mais al aslu fi l ashya al ibaha li nga xam ne moom mooy cosaan ci mbir yépp mooy dafa dagan ba baa muy ñëw am benn texte boo xam daf ne nangam ak sangam dafa xaraam bu boobaa nit ki du ko sañ a jëfandikoo mais islam moom dafa ñëw ci mbir bi mu ko fekkee mbir yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo dafa teg ay règles général léegi yow balaa ngay jëfandikoo lenn da koy jël pratiquer ko ci règle yooyu maanaam xool ci règle yooyu nga xam ne moom la islam tegal nattuwaay yooyu ba xam mbir mi war nga koo mën a jëfandikoo wala mënoo ko jëfandikoo masalan garab mi ngi nii dara nekku ci ci garab bi lañ ko jëlee defar ko day faj si sibur wala bopp bi metti mën nga ko naan ndax loolu moyen la booy jëfandikoo mais du moo lay faj dëgg-dëgg yàlla moo lay faj léegi xool nga garab gi waaye am na ne def nañ ci masalan vin sàngara boo xam ne jël nañ dara ci sàngara ñu def ko ci garab gi ah léegi yow doo ko jëfandikoo lan moo tax parce que islam daf la tere ngay jëfandikoo sàngara diinam mais du ne rek faju shirk la wala du shirk waaye léegi kii moom day laaj mu ne ki nga xam ni nit ñi bu ñu toogee jigéen du ko nuyu waaye bu teg moom da koy nuyu léegi mbir moomu ndax dana ko dugal ci shirk léegi moom moo xam lu mu ci jublu allahu alam man du man may toog ni masalan kii def na lii fii defu ko fii léegi loolu shirk loolu du shirk loolu moom mën moo ko xokma ma ko que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu wax halla shaqaqta an bi nga xamante ni benn waay masalan euh, doon dem xare bi mu xaree ak mu xaree ak euh, yëfër yi ñoom jullit yi ci benn xaswa euh, bu leen yonente bi yabaloon boo xam moom demul bi ñëwee da ko nettali ñoom ni ñu gañee ñoom jullit yi seen seen seen seen seen guerre boobu seen xeex boobu seen diggante ak yëfër yi day nettali di nettali di nettali bay nettali yonente bi sallallahu alayhi wa sallam benn jaamaarloo bu mu jaamaarloo woon ak benn yëfër ñoom ñaar ñu yor ku nekk ci ñoom sa jaasi ñuy épée nee na bu ñu yoree suñu jaasi di xeex ba xeex bi tàng ma jekku ko bi ma ko jekkoo tiim ko dem ba koy rey rek mu ne laa ilaha la ma rey ko dégg nga yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne lu ko lu tax nga rey ko mu ne dama ko rey ndax daf koo wax ngir daw sama jaasi ji yonente bi ne ko halla shaqaqta an qalbihi ndax yow yaa xar xolam ba xam ne li mu di tax moo wax wax ji mooy dafa ragal nga rey ko waaye du lu mu gëm ci xolam kon da ngay gis ne wàllu mbiru loo xam day delluwaat ci xolu doomu aadama nit ki day wax ne wama wama shahidna illa bi ma alim na maanaam da xool li nga xam ne moo feeñ rek nga atte ko mais li mu def jëf bi yow mënuloo ko mënuloo ko interpréter wallahu alam tayib léegi kii day wax ci wàllu tiit est-ce que amul ci tiit yi bu ciy dugg ci bokkaale maanaam boo tiitee ngir lii loolu ak beneen façon tiit yi est-ce que amul yoo xam ne dina mën a dugg nekk léegi wàllu tiit ci boppam tiit boo xam ne bu naturel la loolu du shirk parce que Moussa ci boppam yàlla moo ne fa asbaha xaayifan fi lmadinati fi lmadinati yataraqab Moussa ci boppam bi mu rombee kenn ci waa bani Israël di xeex kenn ci aw xeetam ki nga xam ne moo bokk ci xeetu Moussa dafa sàkku ci Moussa ndimbal jamono yooyu ñu ngi ci dëkku Firawna génnagul bi mu sàkkoo ci Moussa ndimbal Moussa ñëw dafa amoon kattan bi mu ñëwee fekk noonam bi nga xam ne mooy xeex ak keneen ki mu dóor ko kooku daal di faatu Moussa daal di dem léegi ci ëllëg sa bi mu ñëwaatee fekkaat ñeneen ñaar di xeex mu ñëwaat bëgg ci dugg ñu wax ko fa ay wax ba coow am fa Moussa di dem kenn ne ko yow Moussa na nga xam ne day njiit yi nga xamante ni bi ñoom ñoo jiite réew mi ñu ngi dajaloo toog di la waxtaanal ngir xalaatal la fexeel la génnal demal sa yoon léegi Moussa bi ñuy génn dafa tiit la yàlla wax fa asbaha xaayfan foofu xaw fa la jëfandikoo mais xaw fa boobu xaw fa tabii la mooy tiit goo xam ne tiit bu naturel la lu mel ne nga seen gaynde gi di ñëw nga daw loolu tiit la boo xam ne bu naturel la doomu aadama bu ko defee du nekk shirk mais tiit goo xam ne masalan da ngay tiit ne su ma waxee fi sëriñ bi dara mën naa nekk fële masalan lor ma nga xam ne yow da ngaa jàpp dafa xam xëy bu kumpa mën a def ci mbiru baatin comme li nga xam ne yàlla moom moo ko mën a def ci lor nit mu def ko wala koo xamante ni faatu na ay milliers ay ay milliers d'années nga jàpp ne boo toogee fii di ko wax dara mën na la lor wala yu demee noonu loolu ragal googu mooy ragalu biir boo xam ne day dugg ci shirk day duggu ci ci bokkaale. allahu akbar léegi ah? a wax naa ne bu fekkee jeex léegi nañ yem fi daal incha allah subhanaka allahuma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalaamu aleykum wa rahmatullah سورة الدخان بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون يعلمون فارتقب إنهم مرتقبون